this? Are you did? dakkal maanaam taxawal lépp luy ci dogal yi la ñëw bi ci njëkk mooy dinañ ne dakkal maanaam taxawal lépp luy ligne aérienne diggante Sénégal ak réew yu mën a lim ci biir Europe lépp luy avion diggante réew yi dakk na à partir du mercredi 18 mars 2020 à 23 heures cinquante neuf minutes. barke borom Tuuba bi malade wóor na sëñ Bamba jàpp <laughs> jàpp ko du yomb. <laughs> waree tëj laa meññ mooy ba sëñ Mountakha Mbacké defee euh, déclaration euh, wala boog sëñ Bass Abdou Khadre Mbacké ñu ñaanal sëñ Mountakha mu yàgg fii téer ba mu defee déclaration wax ni sëñ bi nee na nangam ba yëkkati 200 millions teg ci taabal ji ni ñoom ñoo ko dimbalee gouvernement bu Sénégal. Mhm. la mu la waroon a tëj làmmiñam moom ak ñeneen ñu mel ni ñoom parce que sa kilifa bu waxee ma jigéen. Mhm. da nga war a da war a noppi mais lu waral wax ju bëri ji lu waral addu gi mbaadu intérêt dafa nekk ci màggal gi mbaadu intérêt dafa nekk ci jàngoro ji bu bu amul yooyu yëpp daal feeñ na ci yëf yi am làmmeñ ku am kàddu ñu di la dégg nag wax dëgg yàlla façon discours yu mel ni waru la gisuma benn intérêt bu waral gouvernement beeg ñi fi nekk di xeex kazu rajab parce que damay wax ni ñoom bu màggal gi amee ñoom la gën a ñoom la gën a arrangé parce que ñoo fay dem di def ay discours ñoo fay dem ci cérémonie officielle bi ñoom lañ fay gis kon ban intérêt moo jar dañuy xeex màggal geeg sëñ Bamba nekk fële lii daal ñaaw na ñaaw na te war na arrêter façon communication bi nag. sëñ Bamba ngi fépp je pense qu'il est trop fanatique gëm-gëmam moo yi ba jàpp na ne euh, euh, dëkk bu sell boobu ji di Touba feebar bi wow fa mën a dugg mais euh, war na mën a gëm ni ak situation bi fi mu toll nii bu ñu demee ba tey président de la république tëj école yi daal di interdire bépp manifestation ci côté sport ci coté religion bi ak fépp foo xamante ne nii rek ay mbooloo dañ fay y a euh, problème am na donc je. voilà donc euh, defe naa balaa may sori euh, yàlla daf ñu wàcceel nattu tey dañu am benn guerre boo xam ne moom moo gën a important ci guerru àdduna bi yëpp muy guerru coronavirus bi pandémie bu duggee ci dëkk bu xasee ba dugg ci dëkk guerre la c'est une guerre donc yaakaar naa ne Macky Sall déjà dafa war a en liche armée sénégalaise yëpp dañ leen war a déployer Euh, pour gën a sax protéger les plus vulnérables les vieux et les petits enfants les taalibe taalibe yi taalibe yi les plus vulnérables Ali Nguy Ndiaye xam na ci dara ndax jaar na ci ñun ñëpp xam nañu déjà la nga xam ne moom moo xew ci affaire ndongo daara ndongo daara mooy ñi gën a vulnérable ci feebar wala bépp genre pandémie boo xam ne ñëw na ci réew waaye nag pandémie li ko grave loo mooy il faut nga sàmm ñëpp il faut nga dimbali ñëpp il faut nga taxaw ñëpp parce que kenn rek bu ko ci amee day wàll ñëpp taalube bi su ko amee ki muy ñëw di yelwaan ci këram da koy wàll taalube bi su ko amee day wàll yeneen taalube yi mu dëkkal ci kër gi day wàll sëriñ bi wàll ñëpp donc taalube yi les plus vulnérables taalube yi surtout man ñoom laay ñaan këru daara yi surtout nañu déployer armée sénégalaise bi ñu dem ñu taxawu leen ci fànn bi ñu leen mën a taxawee tey nag waxtaan bi li ko waral euh, mooy vraiment dama bëgg a gën a ñëw entre responsabilité citoyen ak responsabilité aussi gouvernement euh, tey fan yi gis ngeen ma comme ni ma leen ko waxee di ko ñaan ñëpp di ko ñaan sama naataango ak suñuy àndandoo ak suñuy xarit yëpp ne nañu jàppale Sénégal jàppale Sénégal moo tudd jàppale Sénégal ñun ñëpp ñu ànd ci jàppale Sénégal pour xeex xeex bi néew ma pour jàppale Macky Sall falaat ko troisième wala quatrième mandat néew ma politique politique politicienne bi ngeen di profito nitu Macky Sall yi di ci ñëwaale di ci saaga Sonko wala nitu Idi yi di ci saagaale Sonko wala nitu Sonko yi di nañu arrêté loolu parce que du ñu may nag kenn nañu waxante dëgg nee nañ leen xeex coronavirus la ñu wax nañu arrêté comme Macky Sall mi ngi def li ko war Sonko ngi wax li ko war idée ngi wax li ko war ku nekk na wax li ko war ku nekk sa ay partisans ñun ñëpp ñu ànd rek ñu jàppale Sénégal du heure politique waaye san ne biir pas dina ñu dinañu noppi nag bàyyi ku nekk profito waale sànni ci sa ñaari kàddu yoo xam ne mënoo ko woon wax démb wala ñi warul woon feeñ démb ñi nga xam ne dañoo luubal ay six mille milliards ñi warul woon génn démb duñ leen nangu ngeen di profito waale ci li nga xam ne moom mooy virus bi donc nañu continuer wax ci virus bi wax waxti ni ñu koy fajee continuer waxti ni ñuy tëjee frontières yi continuer jàppale nag kaa nga xam ne moom moo jiitu sénégalais yépp muy président de la république nañ ko jàppale parce que suñu jàppalee président de la république Sénégal la ñu jàppale suñu jàppalewul président de la république suñu bopp la ñu jàppalewul nañu jàppale président de la république loolu awma ci problème mais bu ñu may nag kenn yaakaar ne jàppale président de la république pour voter ko la wala pour ànd ak moom déedéet bokkuñoo moom xalaat bokkuñoo moom parti politique gëmuñu lu bari li muy def ak li muy wax waaye lii coronavirus moo jot te coronavirus dafa wàcc ci biir Sénégal te sénégalais yëpp dañ ci am responsabilité loolu laa bëgg d'abord commencer tàmbalee waxtaan bi bu boobaa nag ma ñëw continuer ci yeneen affaires yi nga xam ne moom moo important vraiment euh, euh, ñu wax li nga euh, xam nga da ngaa lekk xanaa da lekk Euh, gars yi ngeen jéggal ma nag donc euh, ñëpp ñoo xam ne tey euh, da ngeen ñëw ci live bi pour yarade ko xam leen ne dinañ leen bloqué pour ngeen bàyyi ci xel rek parce que tey comme niñ leen ko waxee waxtaan ak doomu sénégalais yi moo ñu tax a jóg dañu ñaan doomu sénégalais yi pour ngeen delloo siwaat seen xel xam ne moment bii du moment wu politique moment bi du moment wu képp koo xam ne bëgg ngaa profito pour bu coronavirus bi jeexee nga fayeeku ci du moment boobu moment bi c'est un moment où les sénégalais doivent sa donné la main du ñu permettre kenn nag ci biir euh, joxante loxo bi du ñu permettre kenn génn di saaga ñun ñi nga xam ne ñoom la ñu gëm ñun gëmuñu loolu ñun gëmuñu loolu ñun gëmuñu loolu ñun gëmuñu la nga xam ne loolu mooy sénégalais yi ñun li ñu gëm loolu la ñu gëm li ñuy xalaat loolu la ñuy wax tey dafa am ay problème yu baree baree bare yoo xam ne tey mi ngi ci àdduna bi mi ngi ñu lëmbee te àdduna bi yëpp a ngi ciy teg seen bët euh, dama ne d'abord fajkatu traditionnel yi nga xam ne ñoom ñooy génn ci dëkk bi di wax lu dul naka si noonu suñu gouvernement dafa war a jël seeni matuwaay bu ñu génnee wax ñu jàppaleen ñii di génn di indi ay faux médicament dinaa nit ñi dama am garab bi ak dama am garab bële lii mooy faj coronavirus ak lii moo ko dul faj dañ leen war a jàpp tëj leen ci biir kaso bi ñu téye seeni ay làmmiñ les porteurs de voix yoo xam ne dañu bëgg a jaxase tarixa yi ak li nga xam ne moom mooy population sénégalaise yi dañu leen war a jàpp ñoom i tëj leen tëj seen làmmiñ ñëwuñu fi pour tàgg kii walla wàññi kële loolu indiwuñu fii li ñu fi indi ñun ñëpp ñu war koo dajaloo def ko tey mooy xeexal Sénégal xeex coronavirus bii nga xam ne moom la yàlla dugal ci suñu biir dëkk muy natt bu mag a mag a mag a mag coronavirus billahi wallahi tallahi bu duggee Sénégal ak doole dinañu rey ñun ñëpp ñu jeex parce que on n'est pas prêt on n'a pas les hôpitaux qu'il on n'a pas le personnel médical qu'il faut on n'a pas les institutions en place qu'il faut on n'a pas le financement qu'il faut donc li ñuy ñaan doomu sénégalais yi na ñëpp toog seen kër yi toog leen ci seen biir kër yi ngeen di raxasu ngeen di sangu ngeen di fagaru loolu lañ leen wax toog leen ci seen biir kër yi responsabilité citoyen boo leen bëggee dimbali ñii nga xam ne ñoom ñoo bëgg a faj virus bii génnee ko ci suñu dëkk yi toog leen ci seen biir kër yi tey rek gis ngeen avion bu wàcc Cap Skirring encore avec soixante et quelques personnes qui viennent de la France doomu aadama yaa ngi daw doomu aadama yi ñu ngi dawee Europe di dugg ci Sénégal doomu aadama yaa ngi dawee Europe di dugg ci Sénégal ñuy ne suñu président de la république na jël matuwaayam juróom benn fukki nit ak benn yooyu jóge Europe daw jàpp leen leen dem leen jëli leen balaa ñuy tas di dugg ci biir dëkk bi benn beneen affaire bi gouvernement bi na def wareefam na def li nga xam ne moom moo ko war na génne armée sénégalaise bi na génne armée bi def ko ci tali bi pour mu sàmm kaaraange doomu aadama yi président de la république jël ay matuwaayam génne armée sénégalaise def leen ci yoon yi ñu bloqué frontières yi ñu bloqué aéroport yi bloqué port yi ba pare sàmm suñu kaaraange parce que loolu lañ ñuy njariñ ci biir réew armée loolu lay njariñ ci biir réew dañuy ñaanaat encore une fois président de la république ñu bañ a politiser li nga xam ne moom mooy coronavirus ñu jël ko def ko exactement li nga xam ne loolu la doon pandemi pandémie la ça n'a rien à voir avec Ousmane Sonko ça n'a rien à voir avec Idrissa Seck ça n'a rien à voir avec Abdoul Mbaye ça n'a rien à voir avec Wali Seck ni Youssou Ndour ni quelqu'un président de la République moom moo autosaisiru def boppam président de la République du Sénégal duñ ko mas a fàtte mais guddi yi ñu toll moom moo nekk ci njiitu réew donc sénégalais yi ñoo ko nangu woon ba tey fekk ko ci bopp réew mi donc ñun ñëpp nañ ci ànd ñun ñëpp nañ ko sàmm aar ko ñun ñëpp nañu fexe ni nga xam ne noonu la ñuy xeexee coronavirus bi ñu concentré wu ci am nañu temps politique y a les années qui viennent y a les mois qui viendront am nañu temps pour loolu mais pour le moment aujourd'hui ce n'est pas le moment comme ni ma leen ko waxee kenn bu mu per kenn bu mu saaga njiitu kenn ku yaakaar ne di nga génn ci moment bii di nga profito pour saaga ci Sonko wala wax ko yu ñaaw te dinañ la déglu duñ ko def we now gonna accept it wala di ko def Idi duñ ko nangu wala di nga ko def Karim duñ ko nangu li ñu wax mooy président de la république na sénégalais yëpp ànd ak moom na sénégale yëpp ànd pour xeex lii nga xam ne moom mooy coronavirus du nangu nag comme niñ leen ko waxee du nangu pour ngeen comprendre ko ci seen bopp ne dañuy noppi ngeen di jël ay daan ay saaga ay te teggin di ko teg ñi nga xam ne ñun ñooñu lañu ñu gëm ñun ñi ñu gëm ba léegi ñooñu la ñu gëm waaye pandémie dafa jot Sénégal ñun ñëpp ñu bëgg a dajaloo en tant que ay doomu sénégalais ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi dajale suñu ay poche pas jël ay alal di ko jox ay gouvernement loolu moom yaakaar naa ne ma fàttaliwaat leen président de la république au moins moom mënoon ñëw taxaw ne àdduna bi tey lii pandémie la banque mondial am na lu mu ci joxe nations euh, organisation euh, nations unies am na lu mu ci joxe am na maanaam euh, organisation yu bari ci monde bi loo xam ne loolu la ñuy jox réew yu amul doole yi vraiment di indi di jàppale doomu adama yi comme ni nga xam ne noonu lañ leen ko war a jàppale donc je pense que président de la république vraiment war nañoo mën a delloo siwaat suñuy xel bañ a jël xaalisu la sénégalais lambda sénégalais lambda bi boo leen bëggee dimbali dem leen ngeen dimbali ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soxla newuñu leen lii du politique c'est pas de la politique parce que lii tu peux même mettre toi ta vie en danger en sortant et disant que tu vas aller faire quelque chose que tu n'as pas droit à faire boo leen bëggee dimbali gouvernement Sénégal toog leen ci seen biir kër yi boo leen bëggee dimbali la gouvernement du Sénégal restez chez vous même aux États-Unis les pays les plus puissants au monde ils ont éliminé toutes les rencontres publiques toutes les rencontres publiques éliminé nañ ko amul benn rencontre publique bu fi am du concert du xawaare du ngénte du dajaloo du wax benn affaire bu dul naka si noonu kenn amul droit dajaloo ay nit a ngi faatu itali ñu ngi faatu Amérique ñu ngi faatu France France tëj na ay frontière am Amérique tëj na ay frontière am Italie tëj na ay frontière am Sénégal joxe na ordre pour ñu tëj ay frontière am mercredi c'est trop tard un peu trop tard c'est bien mais ba léegi ay touristes ñu ngi dawee Europe di dugg Sénégal loolu na arrêté immédiatement président de la République dafa war a jël décret avion yi nekk ci kaw sax dañu war a dellu ci réew yi ñu jóge waruñoo accepté waat benn avion buy wàcc ci territoire nationalu Sénégal Sénégal amul doole bu mu mën a toppatoo boppam donc les Sénégalais on n'a qu'à prendre nos loolu na ngeen ko xam lii pandémie il faut doomu aadama yi xam loolu lii pandémie maanaam adduna bi yëpp la laal laal na Amérique ak dooleem laal na France France a déclaré une guerre contre le coronavirus l'Amérique a déclaré une guerre contre le coronavirus fii Amérique am na parti yoo xam ne mënoo cee dem fenn armée bi tëj nañu yoon bi national garde yi tëj nañu yoon bi donc Canada aussi tëj na ay frontières am réew yi yëpp tëj nañu seeni ay frontières et je pense qu'il est grand temps que le président de la République arrête tous ces entrées du Sénégal aujourd'hui touristes yi di dugg ci Sénégal arrangé wuñu mais naka ngay nekkee ci épi ci mi maanaam toj toj bu magee nii ay avion di jóge Europe di wàcc Cap Skirring tey jii may wax ak yéen soixante et dugg nañu dëkk bi yëpp c'est en panique mais ça c'est extrêmement grave waratuñ koo nangu nañu jël suñu ay responsabilité Guy Marius Sagna wax na ko keroog ci émission bi nee na ñoom bi ñu wàccee Casamance amul woon benn dispositif boo xam ne jëloon nañ ko benn responsabilité boo xam ne nguur gi jëloon na ko teg ko en place mais il faut que ñu arrêter il faut que ñu arrêter il faut ñu arrêter il faut que nous arrêtons sénégalais yi nañu jël suñu ay responsabilité toog leen ci seen biir kër yi ku mën a jàppale président de la république mu xeex pandémie bi baax na ci yow ku ko mënul aussi nga yem ci sa kër parce que aussi lii gën a graval feebar bi mooy doomu aadama yi toogul sur place va et vient bi day tas feebar bi rek lay def du def leneen lu baax ku yaakaar ne maa ngi dem ci kër allaaji ñaan ko dépense je vous yombul yombul ci wax xam nga comme ni ma leen koy waxee Sénégal kenn xamul kaa bi naka nga ko mën a discuter ak doomu aadama quatre-vingt-dix pour cent la majorité partie des sénégalais dencu ñu lekku ñaari fan ci seen biir kër yi ku dencu lekku ñaari fan ci biir këram ni nga koy nee toogal ci sa biir kër nga bañ a génn loolu dana metti c'est quelque chose qui me touche au cœur moo tax may ne toujours ñi nga xam ne denc nañu te ñu ëppale doole ñi nga xam ne ñu nañ leen jàppale Sénégal c'est le moment où dañu war a jàppalante du ay moment wu jox gouvernement Sénégal deux millions wala jox gouvernement Sénégal cinq millions ku ko def sa coobere la je ne suis personne pour vous interdire ce que vous voulez ndax seen xaalisu bopp ngeen koy defee il faut ngeen arrêter dugg ci marché yi dugg ci bus yi dugg ndaje mi il faut ngeen arrêter les sénégalais ñu dara au sérieux lu nekk ñu ngi koy théâtre je regarde des théâtres qui parlent de du coronavirus je parle je regarde des marabouts euh, des personnes ay ay ay seetkat yu ne coronavirus du dugg Sénégal ak du dugg nangam je vois de des porteur de voix ay géwélu réew mi yoo xam ne ñu ngi génn naan coronavirus du dugg Touba ak du dugg Tiwaawoon il faut que vous arrêtez cette médiocrité nañu arrêté gouvernement Sénégal na ñu jël suñu ay matuwaay il faut que ngeen arrêté police bi ngeen bàyyi leen ñu def seen liggéey Il faut que ngeen déglu leen il faut que soit sérieux avec nous-mêmes soyons honnêtes avec nous-mêmes l'heure est grave le Sénégal n'est pas dans un jeu il faut que ñu bàyyi ay caaxaan lii mën nañ fay jaar ñàkk Sénégal genn wàllu Sénégal yëpp dee yu mel nii day xaw ci réew ay millions de personnes di ci faatu di ci ñàkk seen bakkan dimbali leen ñu ngir yàlla ak yonente bi ngeen bàyyi tey seetaan naa benn ngénte benn maire di fecc ne day woy coronavirus démb seetaan naa benn théâtre un jeune qui parlait du coronavirus nañu conscientiser doomu aadama yi au sérieux on n'a qu'à se man dama ci am responsabilité bu ma amuloon responsabilité du ma génn wax mais man maa jël sama bopp ma teg ko ci ma teg sama bopp ci réseaux sociaux yi doomu sénégalais yëpp di ma xaar di ma déglu Donc j'ai une responsabilité pour sortir et dire ce qui est la vérité munoon naa toog sama kër bañ a wax dara wallahi billahi tallaay gën a lu ma may génn di wax mais c'est sérieux ce que nous pleurons aujourd'hui c'est sérieux li ñuy jooy dafa sérieux il faut ngeen xam loolu dafa sérieux li ñuy wax nii dafa sérieux c'est pas politique lii du affaire politique bàyyi leen ku nekk Sénégal situation bu vulnérable la ñuy bañ a gis ñu ne xaaral ñu profité ci diw ameloon na ma ma dem attaqué ko diw waxoon na ma ma wax ko diw daan na ma xas mënuma koo xas tey man naa ko wax lu ñaaw nañu arrêté on n'a qu'à arrêter on n'a qu'à arrêter l'heure est grave y des amis qui meurent y des amis qui perdent leur vie Sénégal nañu jële lii au sérieux Sénégal jëlee leen coronavirus au sérieux suñu sœurs yi waxoon nañ leen ko suñu yaay yi doon leen ko wax suñu mag yi doon leen ko wax lii pandémie la maanaam lii bu wàccee ci réew ay bakkan mën na cee faatu ba mu mat ay junniy bakkan ba mu mat ay millions yi bakkan Sénégal yëpp mën na dee ci lii ba mu jeex tàkk jëlee leen ko au il faut ngeen jëlee ko au metti na ci biir xol waaye autorité sénégalais yi bu ñuy wax ak yéen il faut ngeen déglu leen il faut écouter les autorités neexul ci biir xol waaye nañ leen déglu nañu déglu autorité yi guddi gi ku ànd ak Sonko du la amal benn njariñ pour Sonko wax la li ngay def parce que Sonko mënul jël benn dogal ci Sénégal tey ku ànd ak Idi idi lum la wax ak lum la waxul manul am benn njariñ parce que idi manul jël benn dogal ci Sénégal tey Sénégal kenn rek moo fi mën a jël dogal kooku Macky Sall la kenn rek moo fi mën a jël dogal kooku Macky Sall la vous voyez que y a des personnes qui ne sont pas sérieux même dans le live boo xoolee ci live bi xool leen am na ay nit yuy saaga xool leen lii am na ay nit même aujourd'hui avec ces jours y a des personnes qui insultent ñun nañu concentré wu ci li nga xam ne moom mooy the well being of our nation il y a des millions il y a seize millions de personnes vulnérables au Sénégal aujourd'hui Sénégal seize de vonorable ñoo fa am Sénégal amuñu sax ay tali yu baax yi ñu mënee daw génn dëkk bi bu frontière àdduna bi yëpp gi tëj nañ ko kenn mënta daw dem fenn maanaam kenn mënul génn Sénégal dem ci benn réew ci àdduna bi kenn mënul daw dem fenn kenn mënu ko man mii di wax ak yéen manumaa daw tey dem fenn parce que àdduna bi yëpp tëj nañ ko ku nekk sa kër nga mën a toog ku nekk sa dëkkandoo bi sax seet dem sa kër dëkkandoo sax di saafonte di jox loxo amul njariñ taalibe yi c'est le président de la république qui doit prendre des décrets de de le président de la république moo war a jël décret ñu yónnee chez les ñu dem seeti les vulnérables nañu dem seeti les vulnérables kenn mënul génn Italie y a plus de vingt en Italie déglu leen ma Italie dëkk boo xam ne c'est parmi les pays les plus avancés en médecine y a vingt mille cas y a vingt plus en Italie docteur yaa ngi jooy sage-femme di jooy xamatuñu lu ñuy def ils ont amené des médecins qui retournent mais déglu leen vingt mille cas y' a vingt mille cas mille cas yoo xam ne dañ ko confirmer donc bu amee vingt mille cas yoo xam ne dañ ko confirmer te testé wuñu dëkk bi yëpp na leen leer na beneen cinquante mille cas mi ngi ci dëkk bi boo xam ne yëguñu ko Sénégal yaa a vingt cas wala vingt huit yoo xam ne dañ ko confirmer mais c' parce que ñooñu la ñu testé tey boo moytuwul Sénégal y' a déjà deux cent cas. parce que avion yi di wàcc Cap Skirring ak ñeneen il faut que les Sénégalais il y mille ils disent en Italie il y a vingt trois mille cas tey France il y plus de cinq mille cas aux États-Unis il plus de cinq mille cas cas yi ñu ngi partout ci àdduna bi lii pandémie la na Sénégalais yi jël seeni ay responsabilités il faut respecter les lois mises na ngeen respecter mbir yi nga xam ne moom la ñu teg sur place. politique pas ngeen génn tàccu kii mooy merci wala kii moo dul mersi waxuñu loolu ce que nous nous disons mooy sénégalais yëpp am na droit sénégalais yëpp am na responsabilité ñun ñëpp ñu génn ci pandémie bii ku nekk def ci sa wàll ku nekk na def sa wàll ku man ku man maye leen tous les daare nécessaires ci daara yi daara yi man ñoom ñoo may jooyloo c'est les daara que j'ai des problèmes c'est pas les écoles man daara yi ñooy sama problème école yi tëj nañu daara yi daara yi ak mag ñi ñooy sama problèmes c'est les daara et les vieux qui sont même mon problème il faut sénégalais yi ñu jël suñu ay responsabilité nañu jël suñu ay responsabilité xam ne le Sénégal a besoin de nous notre pays a besoin de nou dañu nekk ci moment boo xam ne dafa critique ci histoire du Sénégal on est sur un moment qui est très critique sur l'histoire du Sénégal donc vraiment euh, na ne quittez pas s'il vous plaît ma xool ndax kii dafa bëgg a participer allo salaamaaleykum ça va merci da nga bëgg a participer waaw voilà merci voilà maa ngi jéggalu dafa am euh, frère bu bëgg a participer ma bàyyi ko participer ñu ngi lay déglu frère. waaw li ma bëgg man sénégalais laa maa ngi fi États-Unis comme ni nga ciy sonnee di wax mais li ma bëgg par exemple tay mhm. nit ñi xam ne yow li ngay sonn di ci wax réalité la. Mhm. lu am la mais sénégalais dañoo tàmm caaxaan. Mhm. lu ndaw ñu jëlee ne ay ñaanu maam yi ñaanu lii lii xaaru fi ñaanu maam xaaru fi ñaanu baay. en tout cas lii comme li nga leen wax. pandémie la feebar la boo xamante ne yàllaa ko fi wàcce yàlla moo ko fi mën a jëlee américains yi nag man fii ma ne gis naa ne ñoom déjà li ñuy wax ne boo ko defee feebar bi mën na laa éviter ñoom seen habitude la mooy boo génnee ci douche raxasu boo lekkee raxasu utiliser ay sanitizer pour wane ne ñoom déjà am nañ hygiène bi tax par exemple loolu war leen bañ a mën a dab rawatina ak Sénégal nga xamante ne benn kaasu ataaya fukki nit ñoo koy bokk benn potu ndox ñëpp a koy bokk benn boolu ceeb ñëpp a koy bokk te déjà Sénégal amuñu les grands moyens pour xeex lii ñoom nag ñu ngi koy def lu ndaw di ko sàgganee di ko kafee mais xamuñu ne li nga leen wax ni mën na arrivé mara détaillé yàlla bu mu am mais mën nañ xëy suba ñu ne Sénégal amatul lu fay exister parce que man sànq live Trump bi maa ngi koy seetaan di ko déglu chaque jour que Dieu fait Trump dina def communiqué pour dalal. chaque jour chaque Trump mu ngi génn. Trump li mu débloqué booy xool Europe Afrique ñoom ñëpp bu ñu ko dajalee li ñu débloqué ci somme Trump débloqué na plus bi par exemple fifteen billion mooy ñaata mooy quinze mille milliards. exactement. la débloqué pour ne médecins yi nañ ci jublu te médecins yi les grande experts dañu xamal nit ñi ne comme quoi ñu ngi ci liggéey bi mais ñu assurer kenn fii ak mois de juin nañu mën a wax ñoom seen i test ndax assuré na wala assuré wul mooy waral ñu jël matuwaay bi. man fii ma nekk ci Michigan ñaari liggéey laa yoroon benn liggéey bi dañ koy arrêté parce que dañuy tere fépp fu fukki nit di daje wala gathering mooy kuy order par exemple di commander lekk fu fukki nit daje bu ñu la fa fekk ku ci nekk bu ñu la jàppee trois mois rek kaso ngay tëdd pour wane ne ñu ngi tere daje bi Sénégal nag ñu ngi noonu ñoom dañoo dëgër fit jàpp nañ ne ñoom diine ji Sénégal lay yeewoo yàlla Sénégal lay yeewoo bu ñu defoon nag très attention jël seen i natuwaay comme li ma lay wax. parce que déjà amul sens nga teraaya dëkk yi tëj seen frontière yow nga tijji say frontière amul benn sens français yu feebar yëpp français yu feebar yëpp Sénégal dañuy mujj wàcc. ñu ngi daw. ñu ngi daw ah Union européenne fi mu nekk nii dañoo mer ndax lan décision bi Trump jël Trump dana leen bu fi benn européen dugg ba keroog ngeen ñu wér. ñu xool ñun ñu balaa may aidé kenn balaa may dimbali benn dëkk damay xool sama waa doomu réew ba pare. yéeféer yaa ngi respecté li yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam waxoon te jullit yi ci boppam mënuñu ko respecté. yonent ah, yàlla sallallahu alayhi wa sallam bi muy génnee lii booba amul benn livre ci àdduna bi bu ko bind nee na feebar bu amee fu mu la mën a fekk ci àdduna bi na nga fa toog ak sa feebar bu fa jógee di ko yóbbu di ko wàll ay doomu aadama loolu yonent ko wax. loolu Donald Trump mi nga xam ne c' est le plus anti-islam du monde il a respecté cette loi nous au Sénégal nous acc ba léegi ñu ngi accueillir ay européens loolu man mënu ma koo gëm c' est ah, extraordinaire lu mu wax xamoo Bill Gates lu mu wax ñu ngi lay déglu nee na selon selon son analyse nee na feebar bi dina def effet bu metti li raw li mu def Chine dina ko def Afrique ah, waaw nee na li am Chine lu ko raw lay defi Afrique ci meurtre. mais oui ak ci ni mu war a circuler contamination bi parce que xam na ne africain duñ jël seen matuwaay. mais dëgg la. waaw koo ci ne doo ko nuyu koo jox loxo mu mer koo rox mu ne ko jaajëf tàllal ko loxo mu ne daf naa xeet nit ñi balaa ñoo am jàmm daje benn jotaay jël benn baraade kaasu ataay fukki nit bokk ko. koo ci ne woon tey par exemple ku ci nekk bu lay indi kaasu boppam ñu ne tubaab la. bu heure bàyyi ataaya dafa jot. ay dajaloo di ataaya fii moom ku nekk ku bëgg sàmm sa bakkan bu yeboo na nga tëju sa biir kër ku bëgg sa bakkan ku bëgg mucc bu yeboo nga des sa biir kër. parce que dëkk yi gën vas-y grand région bi ma nekk Anarba. Mhm. ñaari cas lañ fi gis xaw ma ñeenti cas gouverneur bi woote restaurant yi moom tëj nañu amatuñu restaurant buy tijji école yi tëj nañu dormitoire yi fi élèves war a di fanaan ci université yi. nee nañ leen nañ nañ ko tëj ku nekk dem ñibbi sa kër ci jàng en ligne pour wane ne ñii jël nañu affaire bi au sérieux te ñoom amuñu cas amuñu dix cas amuñu kii tuuti cas la ñu am rek gouverneur bi wax ci ñëpp wax ci mais Sénégal doo ñoom ñoom daal vraiment ñu ma leen mën a wax daal mooy lii leen Tunkara bi wax bu yaboo ngeen bàyyi ci xel lii du lu ndaw lii lu rëy la ñun ñii dañ daan def bu ñu wàccee dem liggéey waat maa ngi sama gàlle toog jàpp sama ñàmbur suba laay xëyaat dem liggéey te booy ñëw fi ngay liggéeye mesures yi ñuy jël dañuy jël bépp mesure am waañ bi sax doo leen ko bokkati waaw du yi chaque trente minutes une heure de temps nit ñi dinañ dugg nettoyer waaw pour wane na rek nañ ko jël au sérieux daal loolu laa leen bëggoon xamal ne lii du lu ndaw du ay ñaan du ay reen du ay dara buñ doon wàccee téeméeri junni junni kaamil kon Arabie Saoudite wàcce ko bu sama baay dellu si woon fii amul benn sëriñ bu fi mën a dellu si waat ci àdduna bi pour mucc leen dama leen koy wax amul benn sëriñ amul yonenti yàlla sax bu ñëwoon feebar bi mënu ko fee dindi parce que yonenti yàlla moo ñu ko waxoon moom moo jël ay matuwaay teg ñu ko yonenti yàlla moom moo ñu waxoon nañu gëm yàlla d'accord mais feebar pandémie fu mu la mën a fekk ci àdduna bi mu ne bul fa jóge di dem ak moom saa booba livre booba médecine amagul booba médecine y avait pas de médecine y avait la médecine traditionnelle nit ñooñu wax ñu ko yàlla moo ñu ko bindal ci ay livre am li yeen doomu aadama yi ngeen ne doo leen respecté li yàlla wax ku nekk bu jógee sama sëriñ sama taalube sama nangam nee na benn sëriñ mënu laa muccal ci coronavirus amul benn sëriñ bu la mën a muccloo ci coronavirus man maa la wax li amul benn sëriñ bu la mën a muccloo ci corona ndax sëriñ bu mënoon dara du dee ñun ñëpp dañuy dee ñun ñëpp dañuy dee lii bàyyi leen ci xel lii waxuma fi ay waxu tarixa ku ma déglu dégg nga li may wax boo leen déggee may jooy man bu ma fi toogoon tey Amérique ma dégg suba ñu ne ma yaa cinq mille sénégalais qui sont décédés billaahi wallaahi tallaay lu mu bon bon dinaa ci am mbokk li nga gis ñu koy def nii neexuñu lii ci sama voix bi gën a kawe laa koy jëlee bàyyi leen ndaje yi ngeen bàyyi ataaya yi ngeen bàyyi maa ngi seeti Jules ngeen bàyyi maa ngi seeti Kacha bàyyi leen maa ngi seeti nangam bàyyi leen ngénte yi arrêté leen ko suñu yaay yi laay waxal yéen a gën a vulnérable ci feebar bi lii feebar bi mag la gën a gaaw a rey ci àdduna bi. géwél yi ngeen di dajale ci seen biir kër yi ñu leen di woy di leen di tàggal seeni maam billaahi wallaahi mën nañ leen indaaleel coronavirus il faut ñu arrêté ko il faut ñu arrêté ko il faut ñu arrêté ndaje yi sa coronavirus est réel tëj nañu frontière u Amérique yi yëpp tëj nañu frontière u France yi yëpp maanaam ma gàttal leen ko ci wax bii feebar la boo xam ne dafay wàlle diggante doomu aadama ak doomu aadama boo jàkkaarloo ak moom sëqat nga ci kanamam mooy am na feebar bi nuyu nga ko mooy am na feebar bi wax nga ko mooy am na feebar bi naan na ci sa kaas mooy am na feebar bi jege na la wax na ak yow rek mooy am na feebar bi c'est très dangereux que les Sénégalais le savent ma ma jël kii day participer voilà euh, bismillah Ousmane ñu ngi lay nuyu. waaw xanaa ma dellu di la ziyaara Ousmane. liggéey bi ngeen di liggéey yéen activistes yi yàlla képp mu leen mën a fay Sénégal dafa tegu dafa nekk réew moo xam ne ci ay fen ay fen la tegu te askan wi dañoo soxla dëgg pour mën a xam naka la ak noonu Ousmane booy daw wala bala ngaa xiru war ngaa xam fi nga jëm fu mu wala lay dàq lan la te l'état du Sénégal n'est pas prêt. non on n'est pas prêt c'est un état c'est un état de manipulation un état de manipulation des intelligences. coow li am ci tarixa yi ak coow li am ci ci ci ci véron kii bi li ko indi mooy dañoo mën a fen te bu ñu dajaloo di fen am na ci wax dañuy rocc ko wax li am bu ñu tëjee ci seen di jëw di jëw di jëw sëñ di jëw sëñ bi danañ ko rocc ko nettali sëñ bi lépp moo tax sëñ bi ñaar day di décision ba pare delluwaat ginnaaw loolu moo ko indi kii c'est un cas très sérieux vraiment gouvernement du Sénégal dafa war a jóg génne vrai information vraie information jox nit ñi waaye information bi la ñuy làkk Macky day anticiper day anticiper Macky est un sous-préfet avant muy wax Mac wax nañ ak Macron Macron woo na leen ñoom ñëpp ci suu région bi xamal leen ne leen damay arrêté vol yi ba pare bàyyi armée bi dugg ndax il faut armée bi xeex ak jàngoro ji ñoom ñu profité naan dañuy arrêté Air France ak arrêté arrêté wuñ dara danoo anticiper le discours de Macron dañuy fenn ndax yu ne nax nag moo baaxut. nan nu wax dëgg nan nu wax dëgg te nag ma di leen xamal leen mu leen xamal leen Macron dégluwutu leen Macron du leen déglu Macron activiste si lay déglu maanaam lii ñuy wax Macron benn office spécial boo xam ne noonu la ñuy déglu noonu la ñuy déglu moo tax nga kenn contrôler information yi contrôler li ñuy wax di wax dëgg te wax ni mu demee te bañ ci am complexe ak discrimination kan koy teg ci yoon sur le du ay professionnel sax. dañuy ay soldats yoo xam ne suñ réew moo gaañu soxla ay xeexkat ñu fotti suñ bu taxaw lii c'était le travail des journalistes mais ay complexe lañ ay corrompu lañ ay nit lañ ñoo alal li leen gënal yëpp luñ a am ñun ñii nag ah dañoo wéeru yàlla foofu suñ bakkan teg dëgg nekk daañu génn daanu ko wax. kan fexe ba information yi ñu joxe yi joxe bu ci Macron jotee ni ñee wax dëgg wax dëgg te fan nag yéen activistes yi gàcce ngaalama lépp loo xam ne siiw na ci yéen a lépp lu ci am yéen a lépp loo xam ne am na ci coppiku yéen a état bi ci ay tappale ak i wuruj ak i ndax ak déplacement ci loolu la mas a nekkee ak nun le jeu de l' intelligence bi Macky Sall jël de tromper le peuple sénégalais de un président illégitime ñu bàyyi ko ci pouvoir bi loolu moo gën a indi coow li sëriñ si respecté wuñ ko parce que xam nañ ne gañewul xam nañ ne gañewul c' est un président illégitime moo tax lu wax ñu teg ko teg fa leneen bu fi Senghor nekkoon bu waxee ñu ne est-ce bu fi Abdou Diouf nekkoon waroon ñu ne est-ce que waaye moom nii mu faloo ak fenn yeeg tàppale yi muy def moo tax sëriñ si wóoluwuñ ko bu ne tey la àllarba sëriñ si di tey la dimanche noonu ne tey la mercredi confusion bi ci état bi la état bi état naafeq la état la boo duñ wax dëgg état la boo xam ne baaxul ci ay xale état bi système bi day yàq diine état bii du état boo xam ne daraam jub na léppam léppam ay maguy la léppam ci riba la ko teg léppam ci ay fen ak i tàppale ba tax na kan bokk ko jóg ngir yàlla yonte bi yéen Sénégal yi nun activistes yi tàllal nañ leen loxo tàllal leen loxo ñaaree loxo nañ leen tàllal sukk ci seen kanam lépp ngir dimbili leen li ñuy wax xëy na àggul ci seen bopp waaye seen njariñ keppa su doog suñ lii ñuy def lii ñuy def neexul yaay Ousmane Tounkara moomu neexul sama ndey neexul samay bokk waaye yéen Sénégal yéen ko jaral bu fekkee dañu futti ko di leen xeexal di xeexal ngeen wañ ko di leen saaga ñu futti ko di leen xeexal ngeen wañ ko nekk suñu der gisatuko leen xeex ngi dem ñàkk doom te ay góor fàkk tëgg leen ay góor fàkk tëgg Ousmane mii ko dem fa muy liggéeyee boo mooy lif mbooloo mi ngi ne du dëgg Ousmane mii boo demoon fa muy liggéeyee tubaab yi futtiku di ko xëyal nga teg ci sa bët naa kii du ab sénégalais nga dem daal les universités fekk fa ñoom axiratoon di jàngal tubaab yi da nga naan kii du dëgg kan bokk honnête kan bokk waxtaan man mii ONG yi américains yi black américains yi national islam black panther movement urban league maanaam boo ma fekkee ci seen biir may wax la naan kii du ab sénégalais tey ñu bàyyi lépp di leen jàppale yéen sénégalais di leen teg ci aw yoon ngeen defee ay dox lañ ngeen defee ñuy taxawaal lañ ngeen defee ñu wedde ay sëri lañ ngeen defee du amuñu diine ñoo leen ëpp diine dañoo mokkal alxuraan dura waaw ah, kon maa ngi jéggul te ñaan jàmm Ousmane góorgóorlu lépp yàlla tax yàlla tax ñu di ko def bul toog yàlla moo lay fay néexul say bokk xam nga néexul say bokk man néexul say bokk rakk ji ma bokkal benn ndey bu ma rombee du ma nuyu ngir bëgg ma bàyyi lii maa na ko maa lànk du ma bàyyi tant que le peuple jàmm les peuples africains nekkuñu jàmm bayoon ma xeex bi kon maa ngi jéggul te ñaan jàmm jaajëf jaajëf waaw gars yi comme niñ leen ko waxee ce qui est important mooy doomu sénégalais yëpp ngeen bàyyi xel ñun toll nañu ci moment boo xam ne danoo sonn nu sommes fatigués man mii ngeen di waxal sama diggante ak yàlla ak yonent bi peut-être vous pouvez l'entendre dans ma voix damay dem ba bëgg a give damay dem ba bëgg bàyyi damay dem ba tëdd sama biir néeg ne man dootuma waxati damaa sonn damaa tàyyi parce que Sénégal du changer mais billaahi wallaahi tallaahi sama doom yi gën a ndaw sax dañ ma koy fàttali toujours ñu ne ma pap mënuloo joxe kàddu te yeggali sa ay commitment ba pare nga bàyyi dafa am ñu nekk Sénégal ñoo xam ne ñun ak ñoom ñoo maase te lii suñu ay doom ñoo ñu koy wax ñun dañuy fàttali na ñoom am nañu seeni ay moroom yu nekk Sénégal yoo xam ne dañu nekk ci ay difficulté donc ñun mënunoo noppalu il faut ngeen xam ne Sénégal liñ fay xeexal ñun amuñ ci benn intérêt nous on n'est pas payé on a zéro on a zéro li ñuy def nii yëpp c'est pour rek seen jàmmu yaram ñu bari ñoo koy def c'est pas un Tounkara y a cent mille activistes aujourd'hui dans les réseaux sociaux cent mille activistes ñoo fi nekk cent mille activistes déglu leen ma de Tounkara ngeen gis parce que Tounkara moo wax ak yéen wala Assane Diouf wala keneen wala mba wala diw wala Masamba wala Mademba wala kii wala kële mais y a cent mille activistes wala Kayz Kof wala Bouly Galissa y cent mille activistes dans ces réseaux y a même plus yoo xam ne ay doomu aadama lañu ku nekk day ñëw de sa façon il faut ngeen comprendre ne l'heure est grave l'heure est grave bàyyi leen lu nit wax yéen a ngi xalaat ne dafa am loo xam lu làqu ci ginnaaw loolu sénégalais rek mooy xalaatee noonu sénégalais rek mooy xalaatee ne lépp lu xew am na lu laqatu ci ginnaaw ngeen jéggal ma am na xarit buy woote ma jël ko asalaamualeykum wa rahmatullah Cheikh ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar euh, grand Ousmane. ñu ngi lay ziar ñu ngi moom mënu ma dama toog di ma téye sama bopp ma ne naa participer ci émission bi. ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. non mhm. ndax man Ousmane Dramé dafa dugg wax ba bilaay sama yaram dafa daw sax. Mhm. parce que dafa métti. Mhm. nga ne ci dëkk bi doon sénégalais. Euh, di xeex benn affaire pour dëkk bi nga dëkk. xam nga di si ñàkk sa alal ñu lay saaga xam nga da ngay dem da ngay bëgg a ji fa comme ni nga ko waxee noonu. xam nga. Euh, mais li am solo rek mooy fu mu toll nii ñu booloo doon benn sensibiliser ñëpp ñu comme ni nga ko waxee noonu ñu ñu ñu bàyyi politique bi. Mhm. Euh, bàyyi sëriñ si bàyyi ñëpp ñu bokk doon Sénégal bàyyi sax Macky Sall parce que buñ ko sóoraale moom. Mhm. you know euh, ñu jéem a ñu jéem a ñun tamit ñu xool ñu mën a jàppee si kenn ku ne village bu nga dëkk wala mën a jàppale si ay ay ay ministères parce que Sénégal amuñu moyen pour jënd bagage yi. Euh, liquide yi yokku na comme ni yokkoo fii Amérique ba manqué sax sa bitig noonu la mel Sénégal yaa ngi dégg parce que ñun amuñ dara loo xam ñoo ko defar suñu bopp euh, léegi fañ ko daan jëlee ji dugatul la fa nekk néew ñu jéem a euh, maanaam daal comme que yow sa communication ak li ngay wax mu ngi dem ci askan wi ñu ngi ñu ngi koy jë ñu ngi koy jëriñoo daal ñu gën a sensibiliser nit ñi ci loolu noonu parce que tey problème bi ñu am nii xool yaa ngi fi Amérique maa ngi Amérique Baye Ousmane mi ngi Amérique tey américains yi ñëpp booloo nañ doon benn billaay ak Trump ah euh, parti politique yëpp ànd nañu ak Trump mais li ko waral Trump bon na de mais lépp lu mu mës a digee rek lu si ëpp def na ko maanaam lu mu deful rek dañ ko ko xañ ensemble beeg ko xañ wala Sénat beeg ko xañ you know euh, léegi nag kenn ne ñun ñun ki ñu yor ñun daf ñuy wax du def fen ñoo fenn fenn fenn ba nga xamante ni moo tax bu feebar bi ñëwee sax si dëkk bi bi mu ne feebar bi am na ñu ñëpp dañ ne waxul dëkk xam nga loolu mooy problème bi ñu am waaye léegi ñun nañ ko fàtte ñun ñu jéem a dox ñun comme que ñun ñu gouverner bopp comme ñun ñooy état kenn ku nekk si ñun sa bopp yaay état ñu doxal jéem a jokkoo waa Sénégal bu ñu lu ñu mën a dimbalee ñu dimbale leen ko ci ay ay matuwaay loolu foofu lañ toll fu mu toll nii parce que affaire yaa ngi ci dëkk bi gis nga ni muy doxee gis nga montant bi ni muy yéegee wàññeekuwul toujours day yéeg bu ñu demee ba dëkk bi nit ñi bëgg a tëju seen kër yi ah euh, restaurant yi tëj muy xew France xew Italie xew fépp Sénégal nag yow bu nekkee ne bu dee yaa ngi ku manifestation yi lan moo tax population bi daawuñu génn Ousmane mooy ku si dem toog sa dem manifestation doo dépense doo jox sa kër dépense léegi ñooñu ñu leen ne toog leen tëj leen seen kër danañ am problème kon soxla nañ ndimbal si xalaat nag parce que amuñ moyen sax waaye a soxla nañ ndimbal si xalaat activité saabu yaa ngi fa bu mot a lik ngay raxasu gis naa benn vidéo bu am solo si net bi xam naa ko partagé si wàllu raxasu bi ak loolu moom même même feebar bu feebar bi amul sax lu marché doomu aadama yi la rek dañ war a sax dëkk yaa ngi dégg comme na nag dañ bàyyi nuyoo beeg mbëkkante beeg taflante be su jóot yeeg yooyu yëpp nañ ko teg su ak ataaya mbooloo toog yor ay ataaya séddale balaa ku nekk def su morom xaatu ataaya yooyu euh, maam daal ñu ngi rafetlu message bi ngay jàllale daal ñu continuer si loolu incha allah yàlla suñu borom dinañ si may ndax maa ngi si Ousmane kontaan nañ jëfe jërëjëf euh, yi comme ni ñu leen ko waxee il faut ngeen comprendre ne heure bàyyi xel dafa jot ay dajaloo ataaya ay partager kaasu ataaya ay joxante loxo ay ay mbëkkante ay biisante ay accolade bàyyi leen ko parce que tey boo sëqatee sa morom taxaw sa kanam sax xamal ni ngay sëqatee normalement boo yoree serviette nee nañ la nga muur serviette bi sa gémmiñ nga ñendu sànni nee nañ la ngay raxasu ngay jël sa loxo di ko raxas xam nga raxas loxo bi li tax ñu koy wax pour ngeen bàyyiwaat ci xel xam nga ñu bari tey dañuy defee ne balaa ngaa raxasu sa loxo tilim doomu aadama buy raxasu loolu lay xalaat day ne ah sama loxo tilimul jarul may raxasu déedéet xam nga tey boo defee antimicrobe sa loxo antimicrobe mooy microbe du tegu ci loxo bi bu ci antimicrobe nekkee maanaam sa loxo bu setee microbe bi nga xam ne moom mooy indi jàngaro ji du nangu toog ci sa loxo dégluwaat leen ma ma wax leen ngeen déglu jàngaro ji sa loxo bu setee walla nga set jàngaro ji du toog fu set bëggul lu set jàngaro ji ci boppam moo bëggul surface bu set moo tax ngay nettoyer surface bi mooy nag ñu bari tey boo leen ko waxul dañuy xalaat ne maanaam raxasu balaa nga koy def balaa wala li tax sa loxo dafa setul déedéet du loolu ça n'a rien à voir da ngay raxasu continuellement parce que du moment où sa loxo bu setee wala nga set rek jàngaro ji mënu cee toog jàngaro ji du toog fu set defal nañ leen vidéo bi vidéo bi sànq dugal nañ ko waaye dinañ leen ko wanaat ngeen gis ko jàngoro ji du nangu toog ci surface bu set léegi jël leen benn exemplaire sànq bu ñu jël. def ko mooy importance voilà bëgg nañu ngeen xool lii. léegi boo xoolee nii euh, boo jëlee sa loxo nga dugal ko ci saabu boo ko jëlee nga dugal ko ci plate bi nga xam ne moom moo am genre micro bi xoolal lépp a ngi daw. mais en même temps aussi léegi boo xoolee loxo bi bu tilimee wala lii loxo bu set léegi lii boo ko xoolee nii loxo bu tilim la boo ko dugalee daanaka yaa ngi gis ne dara bougé wul mais boo jëlee même baaraam boobu tey nga raxas ko léegi xoolal rek boo jëlee baaraam bi nga dugal ko ci saabu xoolal regarde regarde le même geste baaraam bi yaa ngi koy xool. baaraam bi yaa ngi koy gis baaraam bi boo ko gisee buñ ko jëlee dugal ko ci biir saabu désinfectant léegi même baaraam boobu boo ko ñëwee nga jël ko dugal ko ci biir microbe yi xoolal nu muy def exactement gis nga ne day dàq microbe yi donc lii mooy njariñu raxasu merci tout le monde jël leen vidéo bi nag ngeen tas ko parce que c'est très important ngeen njëriñoo ko merci. voilà donc euh, donc gis ngeen exactement li ñu leen doon wax léegi ci njëriñu raxasu njariñu raxasu bi mooy exactement mooy da ngay raxas sa ay loxo ba mu set boo raxasee sa ay loxo ba set boo ko jëlee microbe du ci nangu toog mais sa loxo bu tilimee microbe dina ci toog Sénégal nag ngeen jéggal ma ma Sénégal tey boo fa ñëwoon suba nga ne yonenti yàlla fu mu dëkk ñu ne la fii la dëkk. Sénégal boo fa ñëwoon tey nga ne lan mooy faj nit mu bañ a dee ñu ne la fii la boo ñëwoon Sénégal tey nga ne naka ngay def ba nga xam ne coronavirus du la dal ñu ne la demal ñu yóbbu la sama dëkku maam il faut ñu arrêter yooyu kenn amul faju coronavirus personne n'a le médicament de ce corona personne amul ci àdduna bi réew yu ëpp doole ci àdduna bi trouver guñu li nga xam ne moom mooy garabu coronavirus coronavirus mooy te niku la ñu wax nit ñi bañ a dajaloo di di di nettoyer sa bopp ba mu set kenn amagul garab bi personne amagul kii bi maanaam di jël sa ay précaution rek di jël sa ay précaution xoolal sénégalais yi comme ni ma leen waxee ñun ñu ngi wax am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw di weddi am na ñoo xam ne ñu ngi ñëw di saaga loolu mooy Sénégal Sénégal nii lañ ko xamee ni nga ko xamee mooy yow da ngay ñëw di def fulla ak fayda nga daje fa ak ay doomu aadama yoo xam ne ñoom xamuñu ne y a des personnes qui se mettent la vie en danger ñun loolu moo tax tey ñu bëggoon ñëw rek waxtaan ak yéen mooy coronavirus lu reyel la lu réel la lu réel maanaam ñii leen koy wax autorité sénégalais yi li leen di wax yëpp lu dëggu la ci coronavirus man am naa naqar ci sama biir xol ma war a toog gëm ay nit yu ma gëmul woon mais yàlla moom mooy def lii yàlla moom moo man yàlla moom mooy bëgg ay doomu aadama bu ay jafe-jafe amee ñun ñëpp ñu ànd ñun ñëpp ñu ànd pour man koo xeexandoo lii yàlla moo ñu koy teg mënuñ ci dara coronavirus bi nee nañu tey booy sëqat yenn sëqat façon yu metti yi nga seetaat sa bopp maanaam tey aussi ñu ne la booy tissooli lu nga nga xool sa bopp maanaam aussi symptômes yi Euh, bokk na ci aussi sa gorge di metti wala dara wala sax biir bu daw wala am na daal ay symptômes yu bari te li ci gën a grave ce qui est encore plus grave mooy mën na laa dal te doo am benn symptômes maanaam mën na laa dal ci boppam coronavirus mën nga koo am te doo gis benn jafe-jafe ci sa yaram te doo ko xam te mi ngi ci yow di dund ci yow di dox ci yow te doo ko xam yow da ngay jékki-jékki rek nga am problème aussi fièvre bi maanaam sa température nga koy seet ñu ne température bu élevée aussi ci la donc coronavirus bi c'est quelque chose qui est sérieux di ngeen gis nag ci fan yii di ñëw ay nit yu koy woyee ay nit yu koy mais yaakaar naa ne gouvernement sénégalais ñoo war a jël seeni ay responsabilité comédien bu génn bëgg ko tuutil ngeen jàpp ko dugal ko ci biir kaso bi personne ah maanaam géwél bu génn bëgg koo def ay woyu ay woyukaay wala ay caaxaanukaay ngeen jàpp ko dugal ko ci biir kaso bi marabu ay ay ñii di génn naan dañ ko mën a faj maanaam c'est c'est c'est c'est personne traditionnelle la ñii génn naan am na garabu coronavirus ak ku sangoo lii ku sangoo lale gouvernement Sénégal dafa war a mën jël matuwaayam ngeen tëj ko te yenn aussi citoyen sénégalais yi def leen seen part ku leen ne mën naa faj coronavirus woo leen police nee leen police kii de mi ngi caaxaane lu rëy nee na mën naa faj coronavirus woowal leen ko police ñu ñëw jël si ko appelez la police parce que police mënul def lépp bépp caaxaankat bu génn jox leen ay comprimé ne leen lii mooy garabu coronavirus wala jaaykat yi ci mbedd mi ngeen gis leen ñu yor ay comprimé ay parastamol wala yooyu naan leen boo ci ñaanee lii wala boo ci naanee la jàpp leen leen il faut ngeen xam loolu il faut ngeen di woote police ngeen di déglu aussi li nga xam ne moom mooy li gouvernement bi di digle ci li nga xam ne moom la ñu mën a jël comme kaaraange pour mën a moytundiku coronavirus bi comme ni ma leen ko waxee on n'est pas dans le temps de la politique ñi nga xam ne dañoo ànd ak Sonko wala ñi nga xam ne dañoo ànd ak Idi wala dañoo ànd ak yenn parti politique yi il faut ñu jël cas yooyu yëpp ñu teg ko de côté ñun ñëpp ñu jàppalante xeex lii nga xam ne moom mooy coronavirus bi ñi ànd ak Karim Wade ak ñi ànd ak Ablaye Wade ku nekk man ngaa far fi nga far mais ñun ñëpp nañu ànd joxante loxo Sénégal coronavirus bu fa duggee dina rey ñëpp dina jeexal dëkk bi billaahi wallaahi tallaahi lazim coronavirus bu amee doole Sénégal dina jeexal dëkk bi il faut ngeen bàyyi loolu xel billaahi wallaahi tallaahi fi ma nekk man ci sama kër Amérique sama diggante ak yàlla loke bu ma laal dinaa ko fomp maanaam dama yor ay fompukaay yor ay anti ma ne la dama dem ba mbir mi dafa mel ni doyadi ci man mi ngi nii yéen a ngi xool ci sama biir oto dama ko gànnaayoo bunt bu ma laal sax damay jël désinfectant ma fomp ko ba mu set sama loxo lu ma laal ma fomp ba mu set parce que du man ma ragal dee wala man ma ñeme dee mais dafa am yeneen doomu aadama yoo xam ne mérité wuñu ma wàll leen pourquoi tey man mérité wul man ma jël ko di ko indil sama njaboot di leen ko wàll aw ma ci benn droit mi ngi nii Lysol bi ngeen di dégg Lysol bi bind nañ ci sax ba bind ne day dindi coronavirus te boobu coronavirus ñëwagul mi ngi nii Lysol bi yor naa ko anti anti bio euh, kii mi ngi nii hand sanitizer yëpp a ngi nii yor nañ ko bu ndaw booy dugal sa poche bi ngay bàyyi ci biir oto bi ak boo génnee ci oto bi buntu yi ak lu mu mën a doon damay jël damay dagg lii damay dagg benn damay dagg. ma jël sama loxo fu mu laal ma jël serviette bi ma nettoyé surface yi yëpp lay nettoyé fu ma laal ma jël ko ma nettoyé il faut ngeen xam ne ñëpp amuñu lii d'accord mais am ngeen ndox ak saabu ndox ak saabu nañ ko jël ñu raxasu raxasu dafa baax raxasu yàgg nañ ñu ko wax waaye raxasu léegi ñëw na nekk na garab ci suñu dëkk mi ngi nii ma koy jël di ko fompo pour lan tout simplement pour micro bi bañ maa jege lenn rek ñaan naa ko gouvernement bi bu fekkee am na possibilité facture ndox moom dañ ko war a arrêté automatiquement ci Sénégal facture ndox war nañoo arrêté sénégalais yi pour ñuy fay facture ndox sénégalais yi dañ leen war a arrêté pour ñu bañ a fay facture ndox sénégalais yi nañ leen arrêté pour ñu bañ a fay facture ndox voilà numéro bi 00. Euh, zéro zéro un ngay def trois cent quarante sept cinq cent quatorze vingt quatre soixante sama numéro euh, am na ñu koy laaj zéro zéro un trois cent quarante sept cinq cent quatorze vingt quatre soixante dix donc loolu mooy numéro bi yéen ñu ko soxla mais li am importance ñu wax leen ko léegi yéen doomu sénégalais yi vraiment yéen ñëpp ngeen bàyyi ci xel te dañuy ñaan gouvernement Sénégal encore xam nañu ne ñu ñuy déglu ngeen dimbali ñu ngeen anticiper ko rek parce que Amérique ñu ngi koy def ñu ngi éliminer ay facture yaa T-Mobile man T-Mobile laa am nee nañu du ñu dagg téléphone kenn pour deux mois voilà xam naa nag ci kanam du ñàkk dinañu am luñ ci wàññi pour doomu aadama yi am ko pour doomu aadama yi amul doole man koo fay voilà euh, doomu aadama yi amul doole euh, mais aussi li am importance mooy factures yi parce que gouvernement bi bu faciliter factures yi rek dina faciliter aussi li nga xam ne moom mooy daw euh, dugg ak génn doomu aadama yi loolu aussi nañ ci bàyyi xel gouvernement bi mën naa dimbali doomu aadama yi pour ñu toog seen kër pour mu am yenn yoo xam ne yu bari mën nañ ko mën nañ leen ko yenni yu bari mën nañ leen ko yenni yu bari mën nañ leen koo yenni donc buñ leen ko yennee dina tax dina yombal lu bari ci loxo doomu aadama yi ndax koy ne raxasul bu amee saabu am ndox te xam ne du fay ndox dina raxasu téeméeri yoon mais am na ci tey robinet yoo xam ne Sénégal borom kër yi sax dañ koy tëj parce que dañuy ragal facture ndox mi ñëw donc gouvernement bi war nañu jël suñu ay responsabilité ba wàññi lii nga xam ne moom mooy rax euh, ndox mi ba nga xam ne doomu aadama yëpp dinañ ci mën a bàyyi xel ba nga xam ne doomu aadama yëpp dinañu mën a def lépp loo xam ne man nañ ko pour di raxasu plusieurs fois na ñu reprise sénégalais yi nañu comprendre ne raxasu bi fagaru la fagaru moo gën faju defe naa li waxu wolof la fagaru moo gën faju feebar boo xam ne rëy na reyaay boo xam ne dañu tëj kaaba ji loolu feebar la boo xam ne doomu aadama àdduna bi yëpp war nañ cee mën a bàyyi xel feebar bi rëy na rëy boo xam ne tëj nañu kaaba ji kaaba ji laañ la wax kaaba ji mooy fa nga xam ne moom moo gën a mag ci lislaam mooy fi jullitu àdduna bi yëpp di dem ndaje jullitu Chine baag bu Sénégal baag bu Paris bu Londres fépp fa la ñuy daje tëj nañ ko tëj nañu kaaba ji pour ngeen comprendre ci benn pandémie tëj nañu kaaba ji donc que les Sénégalais le nañu jël suñu ay responsabilité lu tëj Makka du ay caaxaan lu tëj kaaba ji du lu ñu mën a woyee du lu ñuy jël di ko def ay théâtre wala di ko def ay comédie lu tëj kaaba ji lu rëy a rëy kaaba ji juróomi yoon la ma sa tëj ci histoire am dans son histoire yenn yi ay guerre force la yoo xam ne ay ay nit yuy weddi yàlla yu mag ñoo daan jóg ñuy dem di ko di ko xeex yenn yi ay ay ay balaa yu mag a mag a mag ya doon wàcc ay doomu aadama yu ko dem juróomi yoon la kaaba ji mën a tëj la mës a tëj ci àdduna bi les quatre fois et la dernière fois muy coronavirus bii ci pen e pandémie moom euh, mi ngi mi ngi soog a tëj feebar mi ngi soog a tëj kaaba ji ci histoire kaaba ji sinon ay guerre ak ay xare ak ay problème ñoo ko daan tëj mais kaaba ji makka mi ngi soog a tëj ci ay mbiru feebar parce que tout simplement tey boo demee Iran y' plus de quatorze mille cas en Iran y' a plus de vingt vingt cinq mille cas en Italie y' a de euh, cinq mille cas. en France il y plus de 5000 cas ici aux États-Unis donc loolu defe naa dépassé na ay affaire de caaxaan il faut sénégalais yi bëgg nañoo caaxaan bëgg nañoo foo lii du ay affaire nuit blanche sénégalais nag fu mu wéetee mi ngi woote nuit blanche invité ay xaritam ne wala xaaral ma invité mes amis ñu ñëw ñu nuit blanche déedéet lii du ay affaire nuit blanche attendez na quittez pas ma jël xarit bi woote asalaamualeykum wa rahmatullah salaamaaleykum waaleykum salaam grand naka moom. ñu ngi leen di ziar ñu ngi lay déglu bu baax. ñu ngi sant bu baax man maa ngi wootee Maroc. waa ñu ngi lay déglu bismillah. waaw ñun ñun grand ma depuis keroog maa lay suivre mais li nga wax lépp lépp lépp ci Sénégal dëgg la li nga wax ci comportement yi ci jikko yi parce que lii nii dafa saa yu dafa dangereux dafa dafa loo xamante ni ñëpp a tiit ci àdduna bi même fii ma nekk Maroc nit di dañoo tiit fu mu ne nii. parce que tey la fa waaye arrêté avion yi tey jii nii amatul benn avion buy dugg wala buy génn yaa ngi dégg jox ay strict ba même resto yi li ngay gis lépp a tëj instant bi nii lépp a tëj resto yi lépp a tëj ndax lan pour sàmm aar doomu aadama yi nekk ci réew mi fii nii kon nag ñun suñu président Macky Sall ci boppam ak ñu mu àndal dañuy ñaan ngir yàlla war a suuri mu tëjal ñu frontières yi touristes yi nafaraan si di ñëw fii ni daw di fi indi dugalul mu delloo leen bu ñu wàcc dëkk bi parce que ñun amuñu leen luy Sénégal ñoo nekk ci àll bi daw di wut pour suñuy njaboot Sénégal métti na métti na métti na goo xamante nit pour nga am loo fajoo sax c'est difficile da ngay feebar sibru sax pour nga dem pour nga dem dem faj faju sax problème la parce que amoo loo loo loo jënd ordonnance ordonnance donc c'est très dur dafa métti ci côté bu ne secteur bu nekk kon nag ñun aussi ñun population sénégalaise comme ni ngay def nii ñun tam dañoo war a ñun jàppalante suñu biir ñu taxaw wante xam ne lii nii suñu borom moo ko wàcce du loo xam ne lu ñuy gis la wala lu ñuy kii la parce que dañu naan da ngay raxas sa loxo affaire dëgg la dañ koy def dangay ngay dangay da dëgg la mais kenn xamul fu muy jaar loo xamul fu muy jaar nag kon donc xam ne ñii dañoo war a gën a jël seen pro seen précaution parce que métti na trop c'est très dur bëgguma nag jël sa temps bi quoi xam naa yaa ngi ci yaa ngi ci liggéey bi nii mais c'était juste pour moi pour ma ñëw ma woote rek vraiment li ngay def tam kontaan nañ ci trop vraiment yaa ngi wane ko bëgg Sénégal ko bëgg sa réew te jullit ak xan nga aussi parce que jullit rek moom mooy da mooy doxalee nii bu seenee luy lor ay moroom jullit wala doomu aadama yi dafa war a taxaw ne kat moytu leen lii nii buñ fu dugg ñu xeex ko mu jugee fi yàlla yàlla yàlla sàngal ñu sàngal ñu sàngal ñu sutura kon damay ñaan yàlla yàlla yàlla teggi lii yàlla nañu yàlla yàlla làq foo xam ne lii eggul te lii mu yemale ko fi ñaan suñu borom mu yemale ko fi ci xel yi delloo ci parce que tooñ tooñ nañ ko suñu borom àdduna bi duñ koo tooñ. ñaawteef yi jëf yi bon loolu yëpp. xam nga kon donc ñu ngi tuub di jéggal di ñaan yàlla yàlla defal jàmm Sénégal defal jàmm àdduna bi defal jàmm jullit yi ci barke Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam vraiment trop trop trop trop ci li nga taxawaay bi nga bi nga nekkee nii. nit nag mënoo ko xam mais yàlla rek yàlla la yàlla fay sa xol yow. parce que li nga fi wax yëpp wax wax waxu gëm la waxu jullit la aussi. yàlla la yàlla fay sa xol man maa ngi tudd Malick Ba laa tudd. Malick maa ngi fii nii Maroc. jërëjëf jërëjëf Tunkara jërëjëf yal na la yàlla sàmm sàmm ñu ñëpp vraiment kontaan naa ci yow trop merci beaucoup grand waaw gars yi ñu ngi jéggalu ngeen jéggal ñu ngeen jéggal ñu bu baax a baax parce que comme niñ leen ko waxee rek euh, liggéey bi moo xaw a doy waar dafa metti parce que ñun li ñuy def euh, ça prend beaucoup d'énergie ah waaw ñu jëlaat keneen ngeen jéggal ñu asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum oui maa ngi salaam. gannaaw maa ngi ziar baax. waaw ñu ngi delloo ziar yow mi ngi mel ni Italie ngay wootee donc di ñu mën a jox tuuti xalaat ci li li nekk foofu seen dëkk. oui bisimilah. oui gannaaw gannaaw maa ngi ziar bu baax bon di la suivre nag. Mm, ñu delloo ziar mais tey euh, njëkk. waaye mais ñoo ngi fii Italie bon affaire bi garaaw na fi trop trop actuellement ñoo ngi ci vingt cinq mille cas tey rek am nañu trois cent. Euh, trois cent quarante deux euh, ci ci mort mu nekk affaire bu bu grave boo xamante ne nii nii ni ngay sensibiliser Sénégalais yi. bon ma mënuma ma sax di wax ci euh, public bi mais sama xol daal moom lay wax waxee nii quoi. Mm-hmm, mm-hmm. mais li am importance mooy ñu gën a Sénégal pour ñuy raxas seen loxo bu ñu bu ñu waxee ne raxasal sa loxo. Hmm. la plupart man nga sa loxo mën na am microbe nga dugal ko sa bakkan microbe bi dugg wala mu dugg sa gémmiñ wala nga dugal ko même aussi euh, sa bët yooyu yëpp euh, fa euh, virus bi di jaar mën a dugg. Hmm. te comme ni ko waxee nag Sénégal boo dafa gis yu garaaw yoo xam te ni ay dëj. Hmm. ci ngénte ñu dem ñëpp bokkundoo benn palaat ceeb wala bokk benn uh, ci bolu laax bi nekk uh, dafa uh, billaay wallaay grand sensibiliser gën leen a sensibiliser sénégalais yi wax leen dëgg yi même ci ngénte yi ak ceet yi ñu bàyyi ko kasu kaasu bi ngay jël naan jox sa moom ne ko ci barkeelul ñu koy ci passante xoolal loolu migrant et même et même et même attends euh, et même da ngay dugg ci bus euh, ci bus tata yi xam nga ni mu mel bu lay yàlla mayul nga am euh, sa véhicule ma nga dugg ci bus yi di jàppante bi sa loxo ñàkk ah. nga ñëw jàpp ki ki ñëw jàpp mais grand il faut ñu il faut dafa am ju grand yoo xam ne dafa nekk Sénégal ñu koy dund di ko ci vivre lii bu duggee Sénégal ñëppay de ñëpp dinañ si non dafa grave Euh, même ci marché yi euh, da ngay dugg ci marché bon ni ñi di circuler tàngaay bi ñàkk yi mu tàng lool mu tàng mu tàng ñàkk yi ku nekk euh, noyyi bi ngay noyyi sa morom moom lay noy mais mais bon jërëjëf grand vraiment non grand maa ngi kontaan ah, kontaan naa ne bëggoon naa gën a continuer mais xam naa ne ligne bi ah, dafa am ñu bëgg a dugg. loolu la yàlla baax na léegi comme am nga numéro bi rek dinañu jokkoo bu soobee yàlla. jërëjëf ok amul problème merci grand yow nañu déggal incha allah ok. waaw yi ñu ngi jéggalu bu baax a baax a baax xam nga boo toogee nga bëgg xalaat exactement coronavirus bi bu duggee Sénégal yàqute bi mu fa mën a créer lii di biisu tataay lii di njaganjaay lii di bus dakaar dem dikk ci boppam. lii di ndaje personnes yi fu ñuy daje doomu aadama yi fi ñuy daje ci àddina lii di par exemple tey nga jàpp avion yi di wàcc ci biir dëkk bi bateau yi lii di euh, am na ku doon woote léegi s'il te plaît mën ngaa woote waat parce que bi ngay woote booba maa ngi en ligne avec cette personne mais masiba naarul laay yi nga xam ne moom moo ñu mën a dal lii bu duggee Sénégal lenn rek moo leen mën a sàmm te defe naa loolu wax nañ leen ko il faut ngeen tëju seen kër pour benn deux semaines trois semaine jënd leen loo xam ne soxla ngeen ko akas néew loo mënul am démb mënoo ko am tey yàlla du la ko may suba bu leen profito sénégalais profito neex na leen bu leen profito vraiment metti na ci sama biir xol metti na tu sais que ça me fait mal au cœur de dire à une personne koo xam ne wóoru la sax ndax am na lekk suba nga ne ko bul génn sa kër xam nga loolu lu ko gën a metti ci àdduna bi tey am na ay nit yoo xam ne quatre-vingt-dix pour cent de notre pays dañuy génn di di di sàkk lu yóbbu seen kër pour dund donc méttit boobu ci sama biir xol xam naa ne président de la république sax ñemewul tey génn ne sénégalais yi bu leen génn seen kër yi mais bu leen génn seen kër yi bu dul urgence donc au moins côté boobu déglu leen ko bu dul urgence bu ñu nee urgence bu dul da ngay waaj ñàkk sa bakkan wala nit a ngi waaj a ñàkk bakkanam bul génn sa kër donte dangay naan ndox di ponse mburu nga dund moo gën nga dem ci biti di jéem a lijjanti loo xam ne mënoo ko faa am ba dee fekk la fa donc doomu sénégalais yi bàyyi leen loolu xel bu baax xam nga tey bu ma ko waxee ñu bari dinañ ma saaga tey kii dafa réew dafa yaradeku du xalaat déedéet wallaay billaay tallaay du loolu su ma amoon lu doy pour ma partager ko Sénégal yëpp ba kenn du génn dinaa ko def billaahi wallahi tallaay sur la tête de mes enfants su ma yàlla mayoon tey ay milliards yoo xam ne mën naa koo partager ci këru Sénégal yëpp dinaa ko partager kenn du génn dinañu def suñu kattantu lay kattan li ñu man suñu doolee li nga xam ne loolu la ñu permettre dinañ ko def mais billahi wallahi tallahi lazim ku mën a toog sa biir kër noonu rek nga mën a dimbalee senegal toog sa biir kër su dul urgence ne sors pas de if bu dul urgence bul génn sa kër feebar bii bu tasee ci biir Sénégal dinañu jeexal feebar bii bu tasee ci biir Sénégal dinañu jeexal c'est feebar bii wallahi billahi bu tasee ci biir Sénégal dinañu jeexal parce que on n'est pas équipé pour se battre contre cette cette maladie li pandémique bi parewuñu pour xeex ko Sénégal amul matuwaay yi amul l'hôpital yi amul tali yi amul koppar yi amul xalaat bi amul man-man bi yéen a ngi gis xaw ma euh, société lan xaw ma hôpital bële keroog mi ngi génne ay rapide test tey boo testé woon Sénégal yi un million de sénégalais am ko looy def man loo leen faj on ne peut pas même bu ñu créer test bi tey on peut pas les soigner on n'a pas les amuñu moyens yi Sénégal soxla pour ñu faju amuñu ko Sénégal amuñu ay moyens nous n'avons pas de moyens tey amuñu benn benn moyen amuñu benn moyen boo xam ne mën nañoo faju waaye suñu responsabilité la bu ñu génnul wax dañuy nekk ay naafeq mënuñoo génn di wax di critiquer di xeex léegi problème am ci biir dëkk bi ñun ñëpp ñu dem toog ci suñu biir kër yi noppi su ma noppi woon yéen ñi toog ci seen biir kër yëpp di ngeen ma saaga ngeen ne Tunkara moo daan génn di wax lii di wax la lu tax feebar bi bu mu ñëwee am na ci ñoo xam ne tey amuñu sax njëgu télévision bu ñu seetaanee télé pour xam li xew am na ci ñoo xam ne mënuñoo taal télé parce que amuñu télé am na ci ñoo xam ne portable moi dans mon village bu ñu taalee ni portable Tunkara di wax cinquante personnes ñoo koy wër ne voilà regardez c'est ce qu'il a donc yal na yàlla def doomu aadama yooyu dégg message bi ñu partagé ko entre ñoom te loolu la ñu bëgg dañu bëgg ngeen jël message bi partagé ko xam ne am na feebar bu bees bu tudd korona coronavirus dugg na biir Sénégal dugg na fa am na ay cas yu bari tey yu tollook presque fanweeri nit yoo xam ne jàpp na leen léegi loolu nag noo ci moytoo mooy nga toog sa biir kër mënu leen dajale ci grand place yi mënu leen ko fukki nit waru noo ñetti nit waru ñoo jël ñaari nit tey boo jëlee xam nga am na loo xam ne bëggoon naa leen ko bëgg naa leen ko xam ngeen ko ba pare àdduna bi yëpp ñaari nit ñoo ñu jur mooy aadama ak awa yàlla moo ñu won loolu moo ñu won ne aadama mooy suñu baay ñun ñëpp awa mooy suñu yaay ñun ñëpp gis nga ñaata nit ñoo nekk ci àdduna bi y'a presque huit milliards de personnes donc feebar bi bu dalee kenn mën nañoo jàpp ñun ñëpp mën naa dal ñëpp loolu calculer leen ko seen biir bopp boo leen ne déedéet mën naa dal kii du dal ñeneen kalaat leen ne ñaari nit ñooñu jur aadama ak awa ñoo jur lépp luy doomu aadama ci biir àdduna bi aadama ak awa ñoo la jur donc feebar bi bu dalee benn nit mën naa dal ñëpp bu dalee benn nit mën naa dal ñëpp bu bu ma dalee man mën na dal sama jabar mën na dal sama doom mën na dal sama maîtresse doom mën na dal maîtresse su kooku mën na dal ay xaritam mën na dal papp kooku mën na dal nijaayam donc tey feebar bi bu dalee benn doomu aadama mën na ko wàll jabaram jabar ji wàll ko doom ji doom ji wàll ko ay xaritam xarit yi xarit yi wall ko ñoom it seeni xarit wall ko seeni papp wall ko seeni yaay donc xam nga loolu lu mu tudd a trickle down effect a trickle down effect c'est un effet chaîne chaîne la chaîne la mbir mi bu xasee ba dal benn doomu aadama ni ngeen ko mën a moytandikoo rek moytu rek la man fagaru rek la ñu man guddi yi ñu toll mooy ku nekk toog sa kër ku nekk moytu joxe loxo man ngaa jox sàmba loxo léegi mu wàll la ko yow nga jox paata loxo wàll ko ko paata jox loxo aminte wàll ko ko il faut ngeen xam ne sénégalais yi ñun li ñuy wax nii waxuñu ko pour intérêt personnel waxuñu pour fal idri sa Seck waxuñu pour fal Karim Wade waxuñu pour fal Ousmane Sonko waxuñu pour fal président nekk tollootuñu ci loolu fi ñu toll tey nañu dund ba pare yal naa dund ba mën a ñëwaat waxaat ak yéen yal na ngeen dund ba mën mënaat fekkeewaat ba may déglu c'est la réalité Ah, mariya man ngaa woote waat boo magee boo mënee woote waat léegi man ngaa woote waat bi ngay woote sànq dafa tombeek benn nit nekk ci ligne bi waaw defe naa yooyu woote na maa ngi déglu asalaamaaleykum. oui maa ngi salaam maa ngi jéego la ma nga doomu réew mi mën naa duggaat. waaw bi ma fàtte bismillah ñu ngi lay déglu jàllale quoi. vas-y. waaye dafa am beneen affaire tamit dama ko seetlu quoi muy jàkka yi ak jumaa yi boo ko waxee bon dañ naan kii nekkul homme nekkul nit kuy dundu diine yooyu noonu mais. Euh, bu ñu xalaatee rek islam ñun santuñu santuñu bu ñu nekkee ci situation yu mel nii ñu dajaloo ci jàkka yi di fa buxante ak jumaa yi euh, euh, bon lu lu ci mën a gën a waxtaan xam nga jàkka yi paa ya fay nekk ak paa ya fay nekk. Mhm. te paa yi affaire bi da di gaaw a sonal ak maire tamit. waaw waaw mag ñi. mag ñi feebar bi ñooñu lay gën di sonal mag ñi day sonal xale yi day di sonal mais lu ci ëpp victime yi mag ñi la. vérité absolue foog nga wax ak ñoom nag foog nga wax ak ñoom. jërëjëf merci. am sorry ah merci. alors. waaw voilà donc gars yi euh, comme ni ngeen ko déggee rek defe naa euh, dama am lu ma fàtte euh. allo salaamaaleykum. allo salaamaaleykum Ousmane. waaw Maria ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax. waa ñu ngi lay nuyu di la te boo paree dama bëgg nga dugalaaleel mhm. ma sa vidéo boobu sa audio bi nga defoon bu yàgg noonu doomu aadama yàgg nañ koo gis nga ñuy avertir dama bëgg nga dugalaatal ma ko ma dégluloo ko sénégalais nga yónnee waaw waaw soo paree léegi dugalaatal ma ko ah dama ko yónnee si téléphone bi waaw yónnee ma ko ci whatsapp si numéro bi waaw mais yow waxal li nekk waaw léegi yow waxal li ngay wax après nga yónnee ma ko man kay billaay Ousmane waaw Ousmane xol moo neexul rek Euh, nu tudd sax xool dafa neexul daal xam nga lu tax ma dugg naruma woon dugg bugguma tey aw ma envie wax daal xam nga. mais mhm. li tax ma dugg dafa am benn point boo wax mu am solo daal. Mhm. xam nga nu mu tudd sax kon léegi maanaam sénégalais kon yéen yéen a ngi xam lan moo waral Ousmane Tounkara ak ñi nekk ci ak Ousmane euh, tonton Ousmane euh, Dramé mi fi jógee ak ñeneen ñëpp rek ñi nekk ci Europe bi fii ñuy génnee seen télé seen ni ñu koy waxee sax seen téléphone bi aw ma envie wax génnee seen. téléphone yi toog di wax ay heure te wax dafa métti sénégalais yi ah. kon na xam ngeen lu tax xam ngeen lu tax boobu ba léegi xam nga Ousmane Tounkara boobu ba léegi mi ngi ci Facebook bi di teg caméra wam di wax quatorze xuma xuma ñaata wala xuma ñaata milliards mu ngi leen di wax ñeneen ñi di leen wax ñëpp ñu nekk di dénoncé léegi gis ngeen résultat bi xam nga bu hôpital amoon Sénégal est-ce que tiit bii dinañ ko tiit Ousmane yow fi nga toog noonu ci Amérique yow tiituloo parce que yaa ngi Amérique de man am na am nañu ay hôpital yu bari non seulement. mais am nañu ay protection médicale ñun ñëpp sama famille. man tey ma woote woon dinañ ma ñëw yenu ak samay tànk yóbbu ma te te ngelaw li du ma ëpp. laay mhm. léegi nag xam nga man li tax ma dugg. Mhm. ma ne sénégalais yi ñi nekk ci suuf. Mhm. di commenter te nekk Sénégal di dugg di saaga di wax. te xamuñu. ñi nekk Europe taxul ma may wax. Mm-hmm. mais ñi nekk Sénégal léegi xam ngeen lan moo waral Ousmane Tounkara boobu de muy toog di dénoncer di naan nangam nangam te amul bi yow duñ la ci fay cent franc cent franc bu ndaw. Mm-hmm. duñ la ko ci fay. waaw léegi nag yéen pour loolu mu doon dénoncer noonu ak yeneen yeneen yeneen euh, immigré yi fi nekk di dénoncer ngeen di leen wax ne xanaa amoo leen liggéey amande lii lañ leen doon bañal parce que boo leen amoon foofu noonu hôpital ñun ñi fi nekk ñun amuñu problème Ousmane gis nga na ma yàlla baax naa sama wéy bii bu ngeen teewoon wee wee laa wax mu bu métti woon wee bi wee ko rek waxuma yaram bi de wee laa wax ma woote fi ma tëdd fii nii léegi-léegi ñu fekk si ma yol yaasu billaahi ba pare ak respect te dinañ ma defal lépp lu ko war yàlla nañ ci yàlla musal du dëgg waaw léegi Ousmane xoolal Sénégal nu mu toll noonu ñi Sénégal toll noonu amul hôpital lan moo waral suñu dirigeant yi ay jeunes yi jeunes yi xale yu góor yi ay xale yu góor yi ab leen seen xel ci lenn bàyyi leen seen xel ci lenn suñu dirigeants yi dañ ñuy nax dañ leen di nax yeewuñu leen dañ leen di nax billaay da ngay Ousmane man damay damay tàyyal sax léeg-léeg daal dangay tàyyal nga wax daal yéen da ngeen a yaakaar ne ñii nga jël sa téléphone ak wax nu mu méttee léeg-léeg booy wax sa baat bi sama sidditu baat yi day nekk di di génne ndax métti di wax pour nit ñun fi ñu nekk nii ñun ñu ngi sant yàlla ku tekk fi bi yaa ngi sant yàlla parce que tubaab yi am nañu am na nañu yëkkati ci nit mais ñi nekk foofu noonu Sénégal sama yaay mi ngi Sénégal sama ay rakk sama ay mag dem ziyaare ji jox kii loxo jox kële loxo ñu ñëw jox ko sama cousin jox ko ba kii bi tasaaroo ci biir Sénégal léegi bu boobaa ñu nan la ñuy def bu boobaa man dañuy def Sénégalais yeewu leen bu bu yàlla defee Ousmane ba coronavirus bi passé yaakaar naa ne léegi Sénégalais ya nekk Sénégal man ñu nekk fii taxul ñu may may wax. ña nekk Sénégal xanaa léegi da ngeen yeewu ngeen xam lan la activiste leen xeexal. lu rafet li nekk Europe. mais est-ce que dina passé lu rafet. ngi yokk de fi ci Italie moom bëgguma ci wax sax waa wax na ko mi ngi yokk. fii ci Italie fu mu nekk nii mi ngi yokk. est-ce que coronavirus bi kenn xamul lu muy indi Sénégal. waaw mais parce que Ousmane Ousmane yàlla dafa mer. dafa mer yàlla bi am na ay nation yoo xam ne yàlla daf leen effacé ci ay pandémie yàlla am na ay nation yoo xam ne ñëpp a jeex ñëpp dee ba jeex Ousmane Ousmane barki démb dama génn barki démb dama génn di jël bus bi mbedd mi kenn nekku fi di dem ndugg daal parce que ngi la may rek pour nga génn dem ndugg ji comprendre lu may wax def kii dara yëpp a tëj benn maire italien màgget moo ma fekk fu ma toog may xaar bus bi bus bi ñëwagul mu sama doom na def ma ne ko maa ngi fi léegi mu naan ne ah gis nga mbedd mi nu mu mel de ma ne ko dëkk la kay moom kay affaire coronavirus bi mu ne xam nga lii lan la tubaab moo ma ko wax de italien mhm. doomu aadama yi dañu bon ñun doomu aadama yi dañu soxor mu ma léegi xaalis rek mo moom moo ngay xool ci nit ak yeneen ak yeneen Ousmane yàlla ci boppam wax nga ko léegi bu ñu demee ba Màkka Màkka nga xamante ni ne étranger yi jullit yi nekk ci àdduna bi yëpp liñ fay dugal ci xaalis kenn xamul Ousmane nu mu toll mu dem ba Màkka boobu ñu ne ko ràpp tëj ko italien bokk nañ ci doomu aadama yi nekk ci àdduna bi fii ñoo gën a bëgg solo ñu nekk Italie bi xam nañ xam nañ ñu may wax. aj kaay ma wax la bëgg nañu solo te bëgg nañu àdd. waaw kaay ma wax la mhm. aj makk aj bu nekk aj aju makk. day dugal mhm. day dugal makk plus de deux cent milliards de dollars. loolu. Mhm. mat mat na économie wu Sénégal cent cent téeméeri yoon. deux cent milliards de loolu presque deux mille mille ñaata deux cent mille milliards. mën na koo dugal mag mm. ci benn at ñooñu ñooñu dañu tëj loolu ñu ne leen loolu dindi nañ ko faalewuñu xaalis bi muy indi c'est suspend waaw léegi loolu lu muy lu muy tekki Ousmane loolu lu muy tekki mooy feex nañu ñoom am nañu ay hôpitaux ñoom ñu ngi ci jàmm waa léegi Ousmane ma wax la ma wax la lu muy tekki xam nga duggoon na ci sa live ma wax fi benn wax. Mm-hmm. ma ne loolu lan lay tekki. Mm-hmm. waxoon naa la ne jàkke yu bari xam nga ba ma duggee sa live bu mujj bi njëkk ba loolu laa wax la. dëgg la wax naa lu leer du mm-hmm. question ne man yéefar laa du ma yéefar man dama gëm yàlla. même bu ma amul religion sax dama gëm yàlla xam nga dama la fi wax ci sa live bi ma ne. Ousmane jàkke. bala ngay defar jàkke Ousmane Ousmane nit bu amul santé Ousmane sénégalais yi xam na ñu lan mooy santé. Ousmane nit gu gu amul santé naka lay mën a demee jàpp jàpp. ngay ah, sëgg di julli julli comme entraînement la. yonent yàlla sax dafa nañu wut ay ay santé moom santé moom yonent yàlla sax ci li mu gën a respecté ci mu gën a tedd. a loolu waaw léegi nag loolu la naari yi xam moom naari dañu xam ne seen santé moom moo leen a ñu indi leen fa ay milliards yi nga yi ma konteel nii léegi kon nag santé bala ngay wut jàkkee mais wutal santé boo wutee sa santé nga wut say hôpital yu baax. dégg nga région bu nekk ci Sénégal ñi nekk Fatick ñi nekk Fouta ñi nekk l'est l'ouest nord et sud dañ ko waroon a def foofu dañ ko waroon a def ay hôpital nga xam ne ki nekk maatam ki nekk Nangam bu feebaree jarul ñu koy indi fii nii Ndakaaru mais ñun suñu dirigeant yi bu ñu ñëwee lan la ñuy njëkk kii ay stade ay xawma lan ay xawma lan ak lan loolu pour lan la loolu pour lan la léegi nag gis nga ma ne Ousmane barke bi maa ngi la koy waatal si yàlla ne yàlla ci boppam dafa mer ci ñun muy ci sénégalais yi ci nangam ak nangam dafa mer ci xeet yëpp la mer parce que ñaawteef bi moom moo bari léegi Ousmane ñaawteef bi Ousmane fen yi bari nañ ci biir Sénégal nga jéggal ma da gis mag kilifa kilifa bu taxaw ba sax mu wax dara mu xëy ci ëllëg ni man maa waxoon waxeet loolu yoon la ci koo xamante ne kilifa la day wax nit ñi di ko déglu nga génnee sa kàddu ba pare suba suba jot nga génn ci kàddu ba mel ni yow ay kilifa la wax ci biir Sénégal te ñooñu boo leen tuddee ñu ne yow da nga da nga alku yow nit ku réew nga yow la mais xam nga lu gën a grave waaw yi sax dafa tëj Sénégal comme ñi fay toog tey di yaakaar ñu yónnee leen sax ñu dund trans xoolal dèjà yow yaa ngi nii ma man man yow ma yaa dèjà gis ma wuy ma gis nga sénégalais yii di maa ngi excité wu sax maa ngi excité wu xam nga lii moo tax man ak yow ak keneen ak keneen ñu nekk ci réseaux sociaux yi di xeex parce que nee na wax naa la ko léegi nee naa la fii ma nekk ak yow fi nga nekk ak keneen ak keneen ñi nekk fii Europe amuñu problème sa buy métti boo woowee tubaab yi ñu ñëw il faut loolu sénégalais yi nekk ci Sénégal ñu xam loolu ñun amuñu problème mais suñu ndey ñoo nekk ci Sénégal léegi man fu mu nekk nii dama waxoon ne suba par exemple damay génn dem yónnee sama yaay dara mu ndugg dèjà yaa ngi nii wax nga ma lii du ma mën a comme nag ñun dañu am droit wu xeex ñu injustice bi nga xam ne moom moo nekk ko foofu noonu Sénégal dañu am droit wu xeex ko ah. mais Ousmane Ousmane Ousmane li métti na ba pare vidéo boobu ma defoon gis nga vidéo Ousmane ci seize xaw ma seize la ñu sénégalais xaw ma ci quinze millions xaw ma ñaata lañu man maa ci njëkk a def vidéo boobu daal di avertir sénégalais mais ba ma duggee ca commentaire ya am na ñu nga xamante ne du ma ne Sénégalais yëpp mais am na ñu nga xamante ne ñu ngi doon weddi man li may wax xam nga dama leen wax ne leen suñu dirigeants yi ko mais am na ñu nekk foofu di ci commentaire ñu wax bu ma di ma ko xas te li ma waxoon moom moo am anamu ndax ba tey vidéo boobu Ousmane ma ko doon def fekk feebar bi sax ñëwagul fii nii Italie. woo nga ma fii. woo nga ma xaajee ko man maa la woo fii ne la Ousmane génnal alerte parce que dama xam nit bu ñëw dama xam suñu dirigeant suñu dirigeant yi ah Ousmane daal mi ngi noonu ma bañ la tardeel moom daal yal nañu yàlla musal maa ngi nii mi ngi noonu daal doy na waar nelawatuñu lekkatuñu naanatuñu parce que danga am sa yaay sa yaay mag nekk Sénégal ak sa ay rakk ak sa ay nangam nangam hmm? suñu nekkee taal suñu caméra di wax di yeneen sénégalais i nekk ci suuf di la menacer di la def ay di la def yenn yi quoi léegi coronavirus mi ngi noonu wax leen ma ku ko mën a faj Ousmane wax na la léegi bu yonante yàlla wàccoon sax kenn mënu ko faj li amagul garab garab yi génnagul ah sénégalais yi xam ngeen loolu garab yi génnagul merci merci beaucoup siste vraiment. waaw kay Ousmane euh, dafa am rek euh, benn vidéo bu ma gis sànq ma ñaawlu ko torop mu metti ma torop mu metti ma ba fu metti di yem ma bëgg rek doomu sénégalais yi aussi ñuy déglu yooyu di ko bàyyi xel parce que am na yenn yabeel yoo xam ne on l'accepte pas. asalaamualeykum wa rahmatullahi kooku bëgg bàyyi la de. waa grand Ousmane Tounkara ñu ngi lay ziar bu baax. bëgg bàyyi ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar baax a baax ñu ngi lay ziar. delloo ziar bu baax waaw dama bëggoon a dugg ci émission bi pour waxtaan sama xalaat ci affaire yi. am nga waaw demal demal ñu ngi lay déglu bëgg bàyyi vraiment ñu ngi lay déglu. waaw comme man maa ngi Sénégal te xam ngeen ne Sénégal moom. Mhm. mbir mi xaw na doy waa dëgg la parce que sénégalais yi. Mhm. nangu ñoo dégg dëgg quoi parce que dañuy xaar euh, sëriñ yi yi na leen coronavirus am na. Mhm. ñu soog a nangu. Mhm. mais fi mu ne nii gars yi gëmuñ ko. sëriñ wax nañ leen ah, ko population. waaw mais xam nga euh, sénégalais yi seen jëmmi bopp liñ bëgg. waaw mooy sëriñ yi joxe ndigal na takk leen masque. Ah. jug leen ngeen raxasu ji def leen lii def leen lii. te sëriñ si tamit dañoo war a jug wax loolu parce que ñoom taalibe yi ñoom lañuy si ñoom la ñuy sukkandiku. parce que dafa am ñoo xam ne dañuy génn naan coronavirus amul di def ay vidéo di def lépp naan mbir mi du dëgg ay naxaate la dem naa kër diw xool naa ko fekkuma kenn am ko bu leen ko gëm xam nga affaire yooyu noonu baaxul ci réew. baaxul baaxul. te loolu waaw te loolu moo bëri Sénégal jamono ji da ngay dajeeg sax mu ne la dégg naa affaire yi du dëgg dañuy naxaate nii rek barke alxuraani karim xaaju Sénégal bi yëpp koo ci dajal mu ne dégg naa affaire yi du dëgg dañuy naxaate léegi lan lañ bëgg dañoo bëgg mbir mi ñëw. ba daj Sénégal nga soog di ko gëm dafa mel ni loolu la Sénégal ay bëgg dañoo war a yeewu ñi xam ne feebar bi mbugalum yàlla bu wàcc ci kaw suuf la yàlla nag mbugalam su koy wàccee amul kenn koo xam ne dangay taxaw ne diw mën naa garanti lii coronavirus bi kenn mënu ko garanti nañ jéem a jug jéem a jël suñu matuwaay jéem a raxasu jéem a sàmm wanteeg li ñu docteur yi wax parce que li ñu docteur yi wax mooy dëgg parce que man dafa am wax boo xam ne toujours dama koy wax pour sénégalais yi bàyyi ko xel sëriñ yorul domaine faj yorul domaine docteur sëriñ mbiram diine la lay wax nooy jullee nooy jàppee nooy yore sa diine mu jëm ci kanam mbiram docteur docteur bi daf koo jàng ba mokkal ko yor ay diplôme kun docteur bi su na la takkal masque jëlal ndox nga raxasu jëlal lii war nga sàmm wante li docteur bi wax ndax docteur bi ay diplôme moom la yor ci li muy liggéey sénégalais nañ ubbi seen bët ñu bàyyi seen xel bu baax parce que feebar bi bis bu lawee Sénégal katof torof la ci bépp doomu Sénégal bu nekk Sénégal parce que ñun lekkuñ naanuñ xiif sonal nañu amuñu hôpital hôpital bu am trente lal sax amul Sénégal hôpital boo dem matuñ sax ay trente lal allo yaa may dégg. maa ngi lay dégg bu dañ lay déglu. voilà hôpital yi amuñ sax. amuñ sax ay trente lal yoo xam ne lal yu mat la ba su ko su amee trente personnes sax amuñ fuñ leen def kon lii jot na ñëpp jug ñi xeex ak coronavirus bi mu yem fi ànd ak Macky Sall nag soutenir ko parce que lii du mbirum politique man de lu ma bañ bañ Macky mais tey ànd naa ak Macky Sall jox ko sama loxo pour ñu ànd xeex coronavirus bi te bépp doomu Sénégal ak fépp foo mënti nekk war loolu war na la sa wareef la. dëgg la loolu mooy dëgg. waaw sa wareef dama bëgg nag bàyyiloo xel gaa yi nga xam ne ñoom ci politique la ñuy bëgg a dox saa su nekk lii du mbirum politique te kenn waru ko politiquer. waaw parce que dama waxtaan ak benn waaye léegi mu ne ma non man mosuma yaakaar ne da ànd ak Macky Sall ma ne ko. man bañu ma Macky Sall. waaye doxalinam. dëgg la ñun Sénégal lañ gëm su Sénégal soxlaa ñun dootuñ xoolati Macky Sall dañuy xeexal Sénégal. Macky Sall bis bu ñëwee ci xeexu senegal dañuy ànd ak moom ci xeexu senegal boobu parce que coronavirus bii xeexu senegal la. loolu mooy dagg waaw parce que gaal gi tey su muccee Sénégal yëpp danañ mucc su gaal gi diigee Sénégal yëpp danañ diig nañ leen bàyyi suñu xel ñun doomu Sénégalais yi te xam ne coronavirus lu am la te dugg na senegal dugg na Sénégal nañ leen bàyyi ñàkk ngëm bi ndax ay nit ñoo xam ne tekkiwuñ dara ay Ablaye Mbaye Péex di manipuler Sénégalais yi. bëgg a gëmloo Sénégalais loo xam ne du dëgg naan ay coronavirus dugg faak amu faak xam nga yooyu noonu naay sul quoi ci koo xam ne. dañ ko a kooku dañ ko waroon jàpp. man bëgguma woon sax turam dañ ko waroon jàpp. billaahi dañ ko waroon a teg ci yoon baaxul. billaahi ba mu ko waxee gis nga Ablaye Mbaye Pekh ba mu waxee loolu noonu Sénégal yu bëri dañoo gëm lu Ablaye Mbaye Pekh wax na. waaye mais loolu moo porteur de voix loolu moo grave. voilà léegi état di liggéey am am ñoo xam ne dañuy jug pour yàq ak wi parce que ñooñu ay responsabilité lañ tey ku feebar ku feebar rek ñoom seen responsabilité mu ngi fi parce que loolu waruñ ko wax. mais ñun bu ñu toogoon ci live bi tey ne Sénégalais yi euh, feebar bi amu fi ku ñun suñu bàkk ñun ñooy gàdd ñun ñoo ko rey. ku dee ñun yi nga ne feebar bi amul nit dee ci yow yaa ko rey billaay wallaay tallaay loolu mooy dëgg. dëgg la dëgg la moo tax dañu war a sensibiliser sénégalais yi wax leen ñi xam fan la ñuy teg seen tànk wax leen danger bi nekk ci feebar bi wax leen na leen dañ ko war a gëm na lu am la pour ñu jël seen matuwaay parce que mbir su ñëwee parce que loolu yàlla moo ñu ko parce que xaru xaru yàlla bëggu ko te am na loo xam ne xaru la parce que su la leeree ne lii lu am la ñu ne la jëlal matuwaay nga jël def lii def lii def lii mën nga cee mucc nga ne yow doo ko def nu la neex ngay doxee nu la neex ngay waxee lu la neex ngay def su la feebar bi dalee soo ci dee xaru nga def parce que xamoon nga lan moo la war a mën a musal parce que dafa bëri Sénégal yu bëri lu ñuy wax naan ay feebar bi su la waree dal da lay dal su la warta dal da lay dal soo ci waree dee da ngay dee mais demal taxaw ci digg tali ba nga xool na Sénégalais dem taxaw ci digg tali bi camion yi di daw nga xool ndax soo waree dee dangay ngay dee wala soo warta dee da ngay su la fa camion yi fekkee dañ lay rey. te muy dëgg moytu dafa. moytu dafa bokk ci jaamu yàlla yu gën a mag olof njaay nee na daw ba raw ci ngóoru la di moytu feebar ba rëcc dafa bokk ci ngóora jàmbar daw waaye dafa uti doole nañ leen moytu ni ku feebar bii ndax feebar boo xam ne la yàlla daf ko wàccee pour di ko mbugalee àdduna bi ndax àdduna bi injustice moo am ci àdduna bi dama koy wax chaque jour dañ nekk ci monde boo xam ne monde injustice la ay nit a complot bëgg a massacrer ay jullit yoo xam ne defuñ dara lu dul dañ ne yàlla lañ gëm ak seen yonantu bi ay ay tubaab ay occidentaux complot di bombarder fu nekk di rey ay doom aadama ci luñ tegut fenn barke alxuraan karim foog yàlla wàccee mbugalam te loolu occidentaux yi di def noonu teguñ ko fenn lu dul góor jigéen lañ bëgg a daganal ak lesbienne ak lu bon lañ bëgg a installé ci kaw suuf loolu lañ bëgg a installé si kaw suuf moo tax ñuy rey waay ngëm yi di rey ñu gëm yàlla di leen bombardé di leen tuumaal di leen takkal di leen tëj ci kaso yi moo tax yàlla foog mu wàccee coronavirus pour réparer waat adduna bi coronavirus dafa ñëw pour réparer waat adduna bi pour delloo waat nit ñi ci yàlla ñi xam ne yàlla moo fi nekk mooy buur bu mag bi mooy plus puissance bu mag bi grand Ousmane Tounkara maa ngi ziare ñëpp. di leen jéggalu bu baax merci voilà gars yi euh, comme ni ñu leen ko waxee rek sonn na nag comme ni ngeen koy gisee ci ñun euh, physiquement on est fatigué mais tey bépp doomu sénégalais man boo xam ne daf ma doon dégg wala muy dégg ñu may dégg euh, dara dal ko ci xeex bi te déggul ci suñu làmmiñ ak suñu responsabilité ne xeex bi réalité la ku mel ni mbay peex gouvernement Sénégal daf ko waroon jàpp tëj ko pour def ko exemple sénégalais yëpp gis ko dañ ko waroon teg daan bu diis parce que li mu génn def ko c'est un crime c'est un crime contre l'humanité parce que tey ay waxkat ay borom kàddu am na loo xam ne waruñu ko mën a yëkkati di ko teg ci ndoddu sénégalais yi bu fekkee day sa seen vie y la vie des sénégalais am menace du waxtu man Macky Sall sama xarit la man Macky Sall laa àndal wala Macky moo moo ànd ak man ñun loolu du suñu wax ñun loolu intéressé wuñu waaye am na tey ay borom kàddu yoo xam ne dañ leen war a jàpp. dañ leen war a tëj bu ñu waxee kàddu yoo xam ne vraiment day yàq wala day rey ay doomu adama wala ay bakkanu doomu adama dañ cee tegu waa na quittez pas mu ne maire de Ousmane Tounkara démocratie on doit parler non on doit du n'importe quoi aleykum salaam sëñ bi nuyu nañ la ñu ngi lay ziar ñu ngi leen di dellu ziar ñu ngi ci live bi ah. ci laa bëggoon euh, wax rek. waaw ñu ngi lay déglu bisimilah. voilà waaw mais Mbaye Pekh moo mujjee wax ko xam nga fi ngeen daanelee laay wax. Mm-hmm. mais Mbaye Pekh mooy moo mujjee wax parce que xam nga sénégalais yi dafa am kenn ku ci nekk ci loo jokk. Mm-hmm. léegi ñoom fi ñu jokk ñoom ñooñu bu ñu teeloon jël seen responsabilité. Mm-hmm. kon kon seen taalibe yi du ñu jugee dëkkoo dëkku di ñëw ñëw Sénégal ba ko ba di ko fa indi. gars yi dañoo njëkk a def seen déclaration. léegi fu ñu tëjee mbay peex rek am na am na ñeneen ñu ngi fa waroon tëj parce que tey ñii ñu lor. Mhm. tey tey nii ñu lor gis nga Amérique bi mu fiy dugg États-Unis bi mu fiy dugg ñaata kaala woon benn kaala woon. tey mhm. ñu ngi wax soixante dix dee nañu ci New York soixante dix dee nañu. mais oui te loolu barki démb boo jaay rek la. waaw barki démb maanaam pour wal na ne gars yi ñu ngi sànq sénégalais yi te kenn trouvé leen kenn kenn xamul fu ñu nekk. parce que xam nga fii tey bu fekkoon nit rëcc na caméra yaa ngi fépp daañu topp nit ki. fan la dugg ak fan la jaar pour mën a sauver yeneen nit mais Sénégal amuñu lool senegal jàngalekat daw na jàngalekat. daw na mi ngi noonu. jàngalekat daw na dem. jàngalekat mi ngi noonu te. la ñu jàpp mhm. mu daw. voilà mi ngi noonu. mais c'est grave jàngalekat mu daw. léegi nag léegi nag ñoom nañu jël seen responsabilité parce que ñun vidéo yëpp denc nañ ko ñi fi nekkoon di calculer ngir maanaam nit ñi ñëw ci dajaloo yi ngir ñu am ci xaalis ñu ñëw di calculer di naxale di nax xelu sénégalais di naxee suñu xel yi dégg nga ba lii gën a tas ci Sénégal ñoom ñoo ko njëkkee gouvernement bi nag ñoom dañuy seet à chaque fois ki nga xamante ni amul ndey ñu dem jàpp ko mais Balla Masare mi ngi noonu kan moo ko gën a takk moom dacee cee takk rek génn na fi wax lu ko neex mais Serigne Bara Dolly yow moom kooku dañ ko war a sant parce que moom bu fekkoon na la mu waxoon moom ja ànd nañ ko ci waaye lu dul tuutil ko moo tax ñu léegi lii lépp daal di ñëw tasaaroo nii te du dëgg du yoon ndax Sénégal dañoo dañoo bëgg xamal ni gars yi ñoom yoru moomuñu sénégalais yëpp parce que seeni erreur yi ñu def nii tey daañu lar ay daañu lor doomu jàmbur yoo xam ne bokkuñu ci. gars yi nag boo waxee ñu naan da nga dinga fii yàlla rek moo fi nekk man sama responsabilité laa jël fii yàlla rek moo fi nekk mais daañu lor sénégalais yëpp lii ñu def du dëgg du yoon feebar bi ni muy tasee nii ñii pexe yiñ ci am Sénégal amuñu pexe yooyu ndax affaire bi ni muy tasee moo garaaw gars yi yéen ñii def ngeen seen devoir. yéen kenn du leen duur baaraam parce que def ngeen seen devoir ndax da ngeen affaire bi ba mu nekkee siin la ñëpp waroon jël seen responsabilité gars yi toog di seetaan di seetaan di seetaan di calculer bu ñuy waxee ni tey gars yi jël bu leen ñëw visiter ji ba si yàgg sa ñu waxtaan ak seen bopp ñëwaat ni visiter leen damay wax sama benn rakku jabar sama jabar rakkam moom jóge na fii bi muy dem seen waa kër lu nekk lañ ko wax ni ko bul dem Sénégal mu ngi doog a yegg Sénégal tey mais ne muy waxee ne ba tey gëmuñu gëmuñu ni feebare bi am na ndax ñu ngi nekk fanaan naan affaire bi amul gars yi dañuy naxaate moom loolu la fi wax léegi maa ngi ko dégg muy wax sama jabar léegi. dégg moom léegi ñu léegi ñoom gëmuñu ba tey ñoom gëmuñu ñu affaire bi am na ba léegi gëmuñu ko di leen wax ni léegi àdduna bi dafa toll foo xam ni euh, euh, maanaam euh, seen guerre yi ñuy def léegi ci lu des ci mujjum jamono ay virus lay doon lii yonante bi waxoon na ko mille quatre cent ans ci ginnaaw. kon bu fekkee ne ñun ay jullit lañu kenn waru ñëw war a gën a fagaru bu fekkee ne ci lislaam lañu jóg kenn waru ñoo gën a bu dee bu dee ne xam nañu lislaam bi kenn waru ñoo gën a gën a fagaru kon kon lii yëpp jugoon nañ ci kon Sénégal ñu wax ni dëkk yi ci mucc Sénégal moo ci mujj ci lay mujj dugg parce que ñun dañoo wax quatre vingt quinze pour cent jullit lañu mais tey man maa ngi ñaaw njort sax bu duggee ay Mauritanie ay yooyu noonu est-ce que sénégalais yi dugaluñ ko fa parce que am nañu daw comme ni ngeen ko waxee am nañu daw te boo xoolee siin seeni nit ñi am na ñoo xam ne dañu leen doon force di leen jàpp parce que feebar kenn bëggul benn affaire dal la dañ leen doon force di leen jàpp léegi ñoom mooy yooyu ñu am pour dem dem di force nit ñi di leen jàpp amuñu ko Sénégal léegi nag ñi nga xamante ni ñoo ubbi woon seen làmmiñ jël seen responsabilité bopp na leen leer ni bu sénégalais yi deewee deew yu yu jéggi dayoo déclaré nañu sénégalais yi guerre dañu xam loolu loolu rek laa amoon lu ma leen doon merci jërëjëf. jërëjëf ma rek balaa may génn ma ñaanaat euh, président de la république parce que duñ ko sonn. Euh, defe naa annule woon defaru stade boobu tamit lu am maanaa lay doon bu annulé woon defaru stade boobu lu am maanaa lay doon parce que président de la république France Emmanuel Macron euh, jël na taxawaay boo xam ne te comme ñun ci ñoom la ñuy roy te loolu laa gis daanaka maanaam ci Sénégal. Euh, kenn du fay facture courant ak ndox te defe naa Sénégal aussi kenn war ta fay facture courant ak ndox facture courant yi ak ndox yi Sénégal dañ ko war a suspendre jusqu'à nouvel ordre parce que loolu dina tax doomu aadama yi xëy na am am tuuti boo xam ne dinañ ko mën a euh, euh, xalaatee ba mën a toog ci seen biir kër yi voilà facture courant yi ak ndox yi tamit monsieur le président defe naa war nga ko suspendre jusqu'à nouvel ordre parce que bu France bi président de la république jël na jël na artu bi comme ñun France la ñu ne moom la ñuy toppandoo mi ngi nii donc président de la république France euh, voilà suspendre na lépp loo xam ne dafa nekk facture courant ak ndox voilà merci attendez ma jël yaay astu voilà yaay astu ñu ngi lay jël noonu. asalaamaaleykum. Euh, maa ngi leen di ngi lay ziar ñu ngi lay ziar baax a baax. waaw dafa amoon benn message bu ma bëggoon a lancer Sénégal. Mhm. Ah, gouvernement bi laay wax autorité yi pour ñu wax ak waa service d'hygiène. Mhm. parce que ñëpp xam nañ ni Sénégal dafa salte. Mhm, te ñëpp xam nañ ni service d'hygiène deful liggéeyam. actuellement ah, dama wax ni service d'hygiène dafa nekk benn corps boo xam ne dafa mel ni dañ ko rey Sénégal dafa mel ni dundatul. parce que bu ñu nee sa bu ñu nee feebar corona dugg na propriétaire la ñuy jëkk a set. te butigu yi dañuy jaay mburu mm-hmm. te mburu loxo bu nekk day ñëw di koy laal. Mm-hmm. te butigu naar yi amul hygiène. Mm-hmm. kon service d'hygiène lay def appel. mburu dañ ko war a arrêté ci bitigu naar yi di koy jaay nañu bàyyi boulangerie képp di ko jaay. loolu moo bu ne non seulement. non seulement mburu pain au lait fataaya peñe yëpp dañ ko war a arrêté ci boutique yi rapidement ñu arrêté ko mhm. mu am liste boo xam ne dañ ko war a def rapidement mhm. Mhm. parce que mburu boobu nga xamee ni dañuy ñëw di ko laal dañuy gis ku dugal loxoom laal juróomi pain teg jël benn keneen ñëw bu fekkee kooku dafa infecté mën na mën na mën na wàll ci euh, mburu yi loolu mooy dëgg. vin au lait yi da ngay gis ni vitrine bi ñu koy dugal weñ ngi ci biir di wëndeel. li loolu moo fa gën a tuuti. <laughs> beñe yi. donc service d'hygiène. ba pare dañu war a wut ay gants. ah Sénégal. dañu war a wut ay gants di ko euh, jox ko boutique yi borom boutique yi waratuñu liggéey borom boutique yi waratuñu laal dara te seen loxo amul gants. Mhm. parce que ñoom ci seen bopp sax ils sont pas en sécurité. Mhm. borom boutique bi moo gën a exposé ki nga xam ne dafay ñëw di jënd. Mm-hmm. parce que borom boutique bi mooy resevoir mm-hmm. borom boutique bi moom la ñëpp di waxal. Mm-hmm. te xam nga ni suñu boutique borom boutique yi du ñu bale. du ñu raxas y' a pas d' entretien. et ñoom ak seen famille en général dañuy fanaan ci biir boutique bi. donc ba di laal muru bi. di laal suukar bi di tibb suukar bi ci seen loxo. en détail. parce que sénégalais yi amuñu moyen jënd paquetu suukar. Mhm. donc service d'hygiène li mu war a def mooy jël ay gants wër borom boutique yi arrêté leen pour lépp luy mburu lépp luy pain au lait ba pare ay gants ba pare obligatoire ñuy takk yi. Mhm. boole ci masque. Mhm. ainsi que ñuy jaay fruits ci mbedd bi. ñuy jaay fruits pomme orange banana loolu yëpp du n'importe qui mooy ñëw di laal. loo bëgg da nga naan nangam nga bëgg moom mu jël gaawam mu tibb mu peese mu jox la nga dem. Mhm. ki nekk ci boulangerie bi nag di jaay mburu nga xamee ni moom rek moo am droit jaay mburu dafa war a am ay gants moom itam. Mhm. parce que man tey tey tey su ma fekkoon Sénégal dootuma jënd mburu kenn. Mhm. képp ku ma ñëw ci yow fekk la les mains libres ngay laal sama lekk. sans gants du ma jënd ak yow du ko lekk. parce que lii problème la bu nga xamee ni. da nga war a gaawantu njëkkante ak doomu jàngoro bi. Mhm. dañu war a de vingt quatre heures day def ay ravage di dem. day rek day rek. bu dalee suñu maam yi suñu yaay yi ba pare dañu ba pare dañu war a yabal militaire yi ñu décanté marché HLM. effectivement militaire yi war a génn. marché HLM nañu yabal armée parce que dafa mel ni gendarmerie mun ci daal. je l'ai reçu waaw dama lay déglu. yaa may dégg dañu war a yabal corps militaire. am na ñu liggéey nañu dem décanté ji marché HLM ni ñu tegalantoo noonu loolu du loolu loolu c'est am dafa insanitaire. te muy dëgg. marché HLM marché Castor bépp marché boo xam ne dafa débordé romb te trottoir dem ci beneen trottoir ñu entassé wu kii te ak kii kii taxaloo ak kii nañu dem def def parce que quand y a situation oblige oblige. allo. maa ngi déglu ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. parce que ni ñu amee fulla mhm. ay avion du caaxaana. Ah? Mhm. ni ñu amee fulla arrêté màggal arrêté gàmmu du caaxaan de. Mhm. noonu la war a amee fulla décanté marché ak castor. cest à marché bi dina ubbi mais ñan ñooy jaay c'est pas tout le monde. képp ku nga xamee ni da nga da nga sa morom ñu yëkkati la. ba affaire bi am espace nga xam ni kenn du jege moroomam ba pare ñoom ñëpp ñu obligé leen ay gants parce que lii mën na nekk merci beaucoup Macky Sall dafa nekk koo xam ne du xalaat du réfléchir ñun nag Sénégal suñu Sénégal la ñoo ko moom moom daf si jaar benn short période de temps yi dafay dem yoonam dëgg la merci merci beaucoup ñu dénk ko kon nag lii nañ ko def nu mu gën a gaawee wasalaam te ñëpp wut ndox ak omo même sax xar boo ko raxasee na nga jël tuuti eau de javel nga yalandi waat ko yow mi nga xam ne yaa yore xar mi tamit da nga ci laalaale tuuti ci sa ndox nga sangu. merci merci beaucoup. wasalaam jërëjëf jërëjëf waaw defe naa ñun ñëpp ñoo déggandoo loolu euh, muy analyse bu pertinente euh, ma bëgg a dugal rek aussi suñu benn xarit suñu benn euh, am di jàmm ak naataango boo xam ne vraiment. Euh, xam nañ ko muy nit koo xam ne day conseiller toujours ci suñu réseau yi di ñu jox xalaatam di ñu wax lu baax wala grand ñu ngi lay ziar ñu ngi lay ziar baax. waaw ñu ngi lay ziar bu baax euh, Ousmane Tounkara euh, Ngoro. di la di nuyu ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi lay suivre. Mhm. di rafetlu sa leadership j'étais agréablement surpris. Mhm. Euh, euh, leadership bi nga xam ne nii yëkkati nga ko depuis bi affaire coronavirus bi amee parce que euh, man tamit fu mel noonu laa la doon ndax man Ousmane Tounkara bi ma xam mooy Ousmane Tounkara li nga xam ne ci wàllu social lay dox. Mm-hmm. donc ce leadership balaa may gis tous ces leaders de l'opposition ñëpp taxawandoo di wane ne ñi ngi ànd le gouvernement ci liggéey bi. nga xam ne nii foofu lañ toll si àddina bi yëpp foofu lañ toll tamit Amérique bi ñu yeewoo foofu lañ toll affaire différence yi am ci ay nit dañ ko jël teg ko fële parce que am nañ lu doy lu ñu doy mooy lii nga xam ne mu fu mu jëm ak ñun balaa ñoom ñu ko doon def gis nañ la yow ñoo nga jël leadership bi wan nit ñi ne leen fii ngeen war a teg seen tànk nii ngeen war a def c'est lii dañ ko war a xeex donc euh, ma ci profité di la féliciter ci loolu c'est boobu ba léegi tamit arrêté woon loolu loolu la ñuy wax un patriote mm-hmm. patriote day xool li nga xam ne nii mooy njëriñu dëkkam mm-hmm. bañ a xool sa intérêt personnel wala intérêt ñi la jege mm-hmm. donc man du ma ci sori li may wax rek mbokk yi mooy euh, nañ lay déglu ci li nga xam ne nii yaa ngi koy def nii muy di leen xelal ci loo xam ne nii moo leen di jëmale kanam parce que dañu ne lépp loo xam ne nit ku koy wut euh, sante ko gën c' est fii toll foofu lañ toll. nañ nañ déglu autorités yi euh, rawatina ñi nga xam ne nii seen xel dafa màcc jëm ci loolu. Mhm. muy docteur yi. Mhm. et puis euh, euh, liñ ñu wax ñu bàyyi ko ñu bàyyi ko liñ ñu tere ñu ñu bàyyi ñu ñu bàyyi ko. jar jarul jarul di si nekk di jéem a jaay xam-xam. Mhm. c' à dire ku nekk li la yàlla may. dëgg la buñ ci tënkoo rek jàmm la ñooy fi ñu toll nii benn problème la ñu am day mateeg du mateeg bu ci dugal sa loxo. tubaab yi ñoo ko créé wala tubaab yi créé wuñ ko li am solo te am solo mooy feebar yàgg na ci àddina bi c'est bu ñëwee ñan ñooy faj mooy docteurs yi même sallallahu alayhi wa sallam le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam bu feebaroon ay docteur la koy faj. suñu wàllu yàlla yi tamit bañ ci bañ ci liñ ci xàmmee ñun liñ ci fekkee ñu feebaree dañuy dem ci ay docteur dañ leen di faj exemple bi moo ci mën a jël moo Cheikh lay Islam Mame Baye Niass fan la wàccee liggéey London fu mu wàccee London liggéey ci London ci hôpital. Mhm. da faju c'est ça la vérité donc euh, mais bu ñu paree ci loolu ku mel ne yow li nga xam ne yaa ngi ko ci def ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi koy def ci seen leadership ci jéem a éveiller les consciences moo ci paree yow def nga sa devoir mm-hmm. léegi nag dañoo nekk ci àddina boo xam ne nii démocratie la. Mm-hmm. ku nekk da nga koy bàyyi mu dem ak xelam loolu mooy dëgg. Mm-hmm. waaye tey nga farag man par force wala tey nga déglu par force amatul loolu jeex na gasi c'est fini. donc euh, Ousmane loolu laa bëggoon wax maa ngi lay gërëm di gërëm yi lay déglu yëpp c'est di la wax bi Sénégal fës comme di ko Pa Assane di ko waxee euh, euh, patriote lañ la di di la ñaan nga gën a yëngu ci social ndax man ci loolu laa la xam jërëjëf. jërëjëf grand merci merci voilà donc. déggal leen allo. waaw xaaral ma jël la ci attends ne quitte pas ma jël la ci amuloo sama numéro waaw mën nga maa woo whatsapp woo ma ci whatsapp bi ma jël la directement sama whatsapp man waaw gars yi comme niñ leen ko doon waxee rek xam naa premier dernier intervenant bi laay jël Euh, ñun ñëpp euh, dañu am ay responsabilité ci lii nga xam ne moom mooy xeexu corona bi euh, xeex bi dafa nekk loo xam ne Sénégal yëpp dañ ci am responsabilité ak boroom soo mën a yaakaar ne fa nga jóge nag war ngaa mën a dugal sa loxo sa poche war ngaa mën a indi sa ay man-man attendez na quittez pas ma jël kii woote ni jéggal leen jël kii woote ni allo asalaamaaleykum asalaamaaleykum sëñ Mame Saliou ñu ngi lay ziar. ñu ngi lay ziar grand grand na ngeen def. ñu ngi leen di ziar ñu ngi lay déglu bismillah. Ah, waaw ñun moom comme comme daab rek ñun moom euh, dafa am rek man ce la première fois sax may may dugg ci ay live nii di di ci wax parce que ma lay suivre yàgg na trop. te su loolu weesoo bon y' a d' autres yoo xam ne jarul sax wax ci mais comme sénégalais nañ nekk bitim réew euh, gis gis benn sénégalais boo xamante ni dafa jël engagement am di ci wax te par parloowul politique farul waxul fi la waxul dafa contrement Macky Sall waxul dafa faral nguur gi day wax rek ngir le bien-être la population ngir lu nga xamante ni dafa yokk parce feebar bi dafa nekk feebar bu dangereux. Mhm. boo xamante ni adduna yëpp dañ ci sonn. Mhm. su gisee nag Sénégal def volonté. jël wax xelam xalaatam temps dooleem di ko def duñ def lu dul encouragé la si ça seulement moo ñu moo ñu poussé ñu mën la encouragé vraiment di la wax affaire bu naaj la defuñ ko moom pour ngir lenn nag. Mhm. parce que kenn moomuñu. Mhm. duñ gisee ni kuy def baax dañ koy wax te vraiment lii moom en dehors de la politique ci fait quelque chose de bu génial bu magnifique parce que yaa ngi xelal ñii yaa ngi leen di jox euh, ay xalaat ci lépp luñ mën a moytoo parce que feebar bi xajul Sénégal. dafa xajul Chine xajul Europe xajul Amérique waxtu ma Sénégal bu ndaw bee ak moyens yu donc dañ lay encourage di la wax merci beaucoup ci lépp nag di la ñaan yàlla suñu borom subhaanahu mu jàppale la ci xeex bi jàppale la ci engagement bi yàlla musal la ci làmmiñ ak ci leneen waxuñ ko nag ngir leneen mais lu ñu gis la suñu borom sénégalais euh, Ousmane Tounkara di fight ngir la pour le bien-être de la population donc lu ñu def lu du encouragé ko c'était tout simplement ça mënu ma woon koo muñ nag il fallait ko man ma dugg wax la loolu di la wax thank vraiment merci ñu ngi lay suivre di la bu baax a baax. merci grand jërëjëf merci naa yàlla fay. amiin amiin amiin. merci beaucoup donc gars yi comme ni ngeen ko gisee defe naa suñu responsabilité jeex na amiin responsabilité bi moom du jeex mais suñu waxtu tey jeex na bu subaa encore dina ñu continuer waat ñëw est-ce que je peux participer oui tu peux participer am na ku bëgg a participer doxee jàll waaw si tu numéro euh, soo ko amul ñu jox la ko. Euh, 001 347 514 24 70 donc boo wootee rek ñu fermé ak yow ba suba incha allah donc ñu ngi lay xaar pour nga wootee incha allah euh, donc gars yi comme niñ leen ko waxee rek euh, il faut ngeen am compréhension boo xam ne moom la am ci lii mooy nañu tas xibaar bi nañu tas xibaar bi xeex bu Chine attanul Amérique attanu ko. président Amérique man maa toog tey sama ay rongoñ du tuuru muy wax ak ay nit ñuy ne balaa ñuy trouver sax solution ci xeex bi eh, jàngaro ji solution rek laa la wax waxuñu la pour ñu wéral ko ñoom xamuñu nu fii génnee mais xam nañ ne dugg na fi te soixante-dix personnes ñàkk nañ ci seen bakkan attendez ne quittez pas asalaamaaleykum ñu ngi lay déglu. Euh, waaleykum salaam. ñu ngi lay déglu. sist ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax ñu ngi lay déglu. baal leen ma parce que man sama wolof bi leeru donc <laughs> je vais m'exprimer en français. Mhm. Euh, amul problème en fait je juste déjà euh, remercier Tata Astou parce que mhm. son a été vraiment très très bénéfique mhm. pour qu'elle a dit euh, par rapport à l'hygiène sanitaire. Maintenant euh, j'aimerais juste dire que vraiment il faut qu'on soit responsable mmh. et que l'État prenne ses responsabilités. Mmh. Parce que il faut pas qu'on qu se voile la face. La situation, elle va se détériorer malheureusement parce que mhm. les Sénégalais n'ont pas conscience mhm. du fait que la, euh, le virus existe. Mhm. Maintenant, moi, j'aimerais savoir comment est-ce que l'État va faire. Parce que plus il y a de ça, plus le stade, le stade augmente. C'est-à-dire, nous, en France, on est au stade 4. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est passé au stade 4 l'armée est là pour surveiller les passants dehors. On n'a plus droit de sortir, à part pour aller acheter des pains. Mais à un moment donné, les Sénégalais vont arriver à ce moment-là. Mais comment est-ce que les Sénégalais Parce que vous pensez que tout le monde a les moyens pour aller à aller faire des cours pour faire le plein pour, un mois. Mais il faut que les Sénégalais vous vous Et là, le, le coronavirus, c'est une occasion pour les Sénégalais de changer totalement leur comportement et de changer leur mentalité, d'arrêter euh, d'être euh, comme ils sont, c'est-à-dire de prendre tout à la légère, tout ça. Vraiment, il faut qu'on fasse comprendre à nos frères et soeurs, à nos mamans, à nos grands-mères qui sont au Sénégal, qu'il est temps de changer. Aussi, euh, je voudrais juste dire qu'il faut aussi qu'on profite de ça pour, pour, euh, pour euh, forcer, forcer l'État à investir dans, dans les hôpitaux. Voilà. Là, il faut que tout le monde, tout le monde doit sortir et dire à Macky on t'a donné millions, construis-nous un hôpital. Construis-nous un hôpital. Même, c'est a... les hôpitaux, seuls les hôpitaux peuvent sauver les vies. hôpital rek moo mën a muccloo Sénégal problème du dara leneen du ay daara du du ay ay ay ay ndaje du ay xawaare du Youssou Ndour du Wally Seck seuls les hôpitaux peuvent sauver les Sénégalais bu Wally Seck bëggee dimbali na tabax ay hôpital bu Youssou Ndour bëggee dimbali na tabax ay hôpital bu dimbali na tabax ay hôpital kenn mënul dimbali sénégalais yi lu dul hôpital faju rek moo la mën a dimbali faju kese ak ak jël seen ay responsabilités. a Maintenant, il faut construire des hôpitaux et des écoles pour former des médecins et des hôpitaux pour soigner les gens. C'est ça la priorité aujourd'hui. Comprenez bien ça. Parce que hier, j'ai vu un frère qui l'a dit, qui a dit que oui, il veut, il est malade, il veut faire un dara. Mais j'ai dit non, un dara, c'est inutile à l'heure actuelle. C'est inutile, ça va servir à rien. Construisez des hôpitaux, derrière là, construisez des hôpitaux et des écoles, surtout les écoles. Donc l'argent là, il faut qu'on les pousse à sortir l'argent et à investir dans ça. Parce que sinon, on va jamais s'en sortir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et merci beaucoup parce que c'est la première fois que je participe. Merci, merci. Voilà. Merci beaucoup. À demain, Inch'Allah. Merci. waaw gars yi defe naa fi mu toll nii moom euh, def nañu suñu katantulaay katan pour journée bi dama bëggoon ngeen déglu vidéo bi cette vidéo cette dame elle beaucoup plus tôt def na ko xam nga ñun yàgg nañ leen wax waxu coronavirus yàgg nañ leen wax ay waxu hôpitaux yàgg nañu leen wax mais loolu yëpp qu'importe nañ ko teg de côté parce que tey du jour critique c'est pas un jour pour critiquer l'autorité sénégalaise c'est pas un jour pour critiquer Macky Sall je pense que critiquer Macky Sall ne va pas sauver des vies aujourd'hui au Sénégal critiquer le, le gouvernement du sauver benn vie ci Sénégal loolu rek la am pour wax leen critiquer Macky Sall du sauver benn vie xam nga dafa am temps wu am temps wu solution se le moment de la solution aujourd'hui il y a les Sénégalais qui sont déjà malades nous avons donc des frères qui sont déjà malades voilà jéggal leen ma kii il faut ma jël ko parce que démb ba léegi mi ngi woote asalaamualeykum frère maa ngi jéggalu xam naa démb woote woon nga mënuñu laa jël moo tax ma forcé nii pour jël la tey voilà vas-y Bolo maa ngi lay ziar na tey tey. waaw ñu ngi di rafetlu di rafetlu liggéey bi vraiment saa su nekk chaque fois damay bëgg woote dugg mi mais des fois dafay xat di wax di wax di wax juste rek ci situation Sénégal bi xam nga li gën a nekk suñu problème Tunkara mooy Sénégal yi seen wàll bopp gëmuñu ne coronavirus am na Sénégal. ah nañu arrêté lool de. coronavirus am na ak doole baax na. parce que parce que gis nga ñun dëkk yi ñu nekk ñoom dañuy déglu état yi état yi dañuy wax dara rek ministère dafay communiquer rek dëkk bépp jot ci dëkk bépp appliqué mais Sénégal Sénégal nit ñi seen wàllu bopp ñoom ñoo gëmul que ne coronavirus am na Sénégal. am na fa de ak doole nag ma la ko. mi ngi te léegi maa ngi déglu rapide maa ngi déglu sànq benn benn benn waay di wax ci benn audio ne chef de quartier bi xaw ma chef de village bi nekk Touba génnoon def benn sortie que ne coronavirus amul foofu dañ ko war a arrêté dañ ko war a yóbbu police ma ne ko Tunkara comment fait-il que ñun Sénégal ñoo amee chef de quartier te ñu war a divulguer benn information mais ban moyen moo ci gën a gaaw du jaar ci chef de quartier bi. en tout cas en tout cas. chef de quartier bi chef de quartier bi dem ci jàkk ji jël rajo micro bi jël micro jàkk ji wax ci asalaamaaleykum waa dëkk bi ñu ngi leen di ñaan ngeen def lii ak lii ak lii ak lii nga coronavirus baa ngi ci dëkk bi mais su Tounkara loolu noonu ngaa gënul gaaw conscientiser leen moo gën a gaaw moo gën a gaaw mais mais man mii tey xam nga yow man gëmuma suñu état yi man suñu ministre génnee wax dara sax ko gëm man dama naan kii moom day fo leen nag fan yi ñu gëm leen fan il faut ñu gëm leen cest à xam nga problème bi ñoom ñoo ko liggéey instant bii ni Sénégal tool tolloon war ñu toll di werante dañoo war a xool nu ñuy dajaloowee. Mhm. xool nu ñuy régler problème bi. Mhm. Mhm. parce que instant du ay du du nekk ñu ay moment di politique wala campagne non loolu dafa jee instant bi dañu war a respecter affaire bi jël ko au sérieux comme ni ko yeneen dëkk yi jëlee. caaxaan da jeex na moment wu caaxaan dafa jeex. man dëkk bi ma nekk dañoo jël dëkk bi ma nekk dañoo jël seen marine bi marine bi la ñu jël duggal ko ci affaire bi ñoom ñooy gérer lépp militaires yi ñooy gérer affaire bi ci biir dëkk bi yàlla xam na ko du sax police. te muy dëgg noonu la ware waaw mais tunkara du ma tunkara du ma guddal dama tay baal xam naa incha allah ba beneen yoon comme guddi na. incha allah hmm? ba suba rek bu soobee yàlla. ñu gën a yaatal incha allah merci beaucoup ah. yàlla na yàlla fay la jërëjëf merci. waa gars yi defe naa tey moom fii lañ koy yemale. dama leen bëggoon dégluloo rek ngeen déglu euh, euh, audio bi c'est c'est extraordinaire xam nga ndeysaan ñu ne la yenn saay nit dalay wax dara euh, cette sœur eh, audio bi bi mu koy def yàgg na de di mbokku Facebook gi euh, mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jaajëfal ñëpp rek jot daal di jot léegi rek benn euh, information du dëgg buy wax si maanaam euh, virus bi nga xamante ne moom moo am fële na ci Chine ci dëkku chinois yi ne dafa am trois cent mille chinois yu demoon defe ji benn festival seen fële Chine te fu mu nekk nii ñi ngi fas yéene ñibbi si daal ñi ngi fas yéene ñibbi si ñëw duggu dugg biir Afrique Sénégal Gambie maanaam ci dëkku africain yépp daal du dëgg eh, lii nag alerte la képp ku jot sànq jot naa information bi ba dugal ko ci biir groupe whatsapp yeeg groupe facebook beeg fépp képp ku ko gis mi ngi sama page képp ku ko gis rek jël ko partagé ko bu ko xeeb a partagé waaw fu mu nekk nii italiens yi français yi allemands yi ñëpp tëj nañu seen frontières yi ñun rek ñoo tëjul suñu frontière du dëgg parce que suñu amuñu ay dirigeants yu baax te chinois yooyu dem seen dëkk yi du dëgg dem defe ji festival boobu ba pare suñuy ñibbisi am duñ leen du duñu tëj frontières yi duñ leen retourné parce que nit ku ñuul dama ni moo gën a bon ci xeetu yàlla yi li yàlla bind ah ñun ñu ngi fii nekk fii nii Europe tey jii euh, chinois yi bu ñu ñëwee dugg si dugg si Sénégal ah dugg si Afrique de def comme Ebola bi dañ ñuy rey ñun ñëpp dañ fa am suñu ay mbokk képp ku jot sama vok sama vidéo bi ngir yàlla ak yonente bi partagé ko ñi nga xam ne ñoom ñooy def live ay Ousmane Tunkara ak suñu mbokk yi xale yu góor yi jigéen ñi képp kuy def live rek génneel génneel nga dénoncé ko ku mën a wax français waxal français ñag yi dégg ko live katu ñag ñag yi dégg ko du dëgg parce que internet bi dafa gaaw faraj faraj lay def di yegg fépp waaw alerte la ku mën a def français ci nu mu tudd sax euh, live ci ci français nga def ko def ko ci italien def ko ci xeet xeet boo mën a dégg nga def ko alerte la te chinois yooyu nga xam ne ñoo demoon defe ji euh, festival ci seen réew yi ñi ngi ñëw ñibbi si ñu bàyyi leen ñu dugg sànq nii rek ci eh, ci eh, télévision wu italien yi laa doon seetaan léegi journal du dëgg euh, xale bi xale bu jigéen bi journaliste bi def reportage dem ci restaurant wu chinois yi en Milan amul benn ñuy ñuy xool ndax ndax restaurant yi ay ay nit a nga fa pour lekk amul benn picc nit benn nit. xam ngeen ne ndaw si itali la ne bi muy wax lii itali amul benn cas xam ngeen tey ñaata cas moo am itali vingt cinq mille cas y' a vingt cinq mille déglu leen. ju ñaar fukki junni ak juróomi nit ñoo ko am ci itali xam ngeen itali fan la gën a jege ci dëkk yëpp Afrique itali moo gën a jege Afrique dëkk àdduna yëpp Italie gën a jege Afrique xam ngeen tey sagganee feebar bi vingt cinq mille cas coronavirus bu amee Sénégal ñëppay dee tout le monde vont mourir vingt cinq mille cas Sénégal amul mille lii Sénégal amul junni lal amu ko Sénégal bu ma juumul dégg naa ñuy wax ay waxu quelque et Sénégal est-ce que am na téeméeri lal yu disponible pour faj coronavirus vingt cinq mille cas coronavirus bu duggee Sénégal ñëpp ay dee loolu bàyyi leen ko xel bu subaa dinaa dellu siwaat encore gën a conscientiser doomu aadama yi ci kaw coronavirus bi du ñu sonn yàlla bu ñu yàlla sonal yàlla nañu yàlla may euh, kattan boo xam ne dañ koy continuer xeex bi yàlla nañu yàlla continuer may man-man bi continuer may pexe bi di ngeen dégg lu ne nag dinañ ñu saaga dinañ ñu saaga ndey dina ñu xas dinañ ñu peinture lu ne dinañ ñu ko def amul problème ñun li ñu intéressé mooy na Sénégal nekk ci jàmm na Sénégal nekk ci jàmm rek sénégalais yi bu ñu dundee bu doon donte benn doomu sénégalais moo dund ci suñu xeex bi alhamdulilahi rabbil alamin donte benn doomu sénégalais rek bu dundee ci xeex bi ñun suñu suñu ak wàcc na wàccoo nañu ak sénégalais yi donte benn doomu sénégalais la ñu mën a dundal parce que une vie euh, euh, euh, une vie benn bakkan boo bo bo boo boo boo protégé envou vaut mille vraiment euh, nañu yàlla sàmm yàlla aar ñu yàlla suturaal ñu yàlla dimbali ñu lii nga xam ne moom mooy feebaru coronavirus bii euh, yàlla dimbali ñu suturaal ñu ci euh, maa ngi leen di tegal nag benn ndeysaan benn jàngkatu alxuraan bu ma neex Umar Umar benn jeune bu ma neex la Umar Jaabi dama dégg vidéo bi mu neex. coronavirus wa ma adraka mal coronavirus إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس توضأ خمس مرات في اليوم ثم صل صلواتك الخمس ثم قرأ شيئا من الأذكار ثم قرأ شيئا من القرآن ثم توكل على الله إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس وتوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس يقول الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس إذا كنت مؤمنا توكل على الله توكل على الله توضأ خمس مرات في اليوم وصل صلواتك الخمس وقرأ شيئا من الأذكار وقرأ شيئا من القرآن ثم توكل على الله إذا كنت مؤمنا فلا تخاف من كورونا فيروس waaw euh, gars yi ñu tàggu leen rek xam naa ba suba incha allah